bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi dellu siwaat ci jotaay yi nga xam ne moom lañ leen baaxoo amalal di ko teertoo bis bu màgg boobu nga xam ne moom lañ dëgmal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii ñu nekk di safar ngeen ci ànd ak bokk yi nga xamante ne ñooy saytu jumaay Sëñ Tuubaa ju mag ji nekk fii ci Tuubaa muy daayira muxaddamatul xidma lil masjidil xadimi tuubawi tey jii ñu amalaat beneen jotaay ci jotaay yooyu nga xam ne diggoon nañ leen ci njëlbeen ne dinañ ko ànd ak yéen ba fukki fan ak juróom ci weeru safar kon tey mooy jotaay bi nga xam ne mooy jiitu bi ñu koy tëjee incha allahu taala niñ ko yëglee woon itam ci mbooleem plateforme yi nga xamante ne daayira bi mi ngi ciy jaarale yi nga xamante ne moom lay amal ci ay taxawaay ci jàngale ak yeete digoon nañ leen ne dinañ amal ab jotaay incha allahu tey jii bu 9 ci guddi jotee ba tegal fanweeri simili di jéggulu mboolem mbokk yi nga xamante ne taamu woon nañ ko topp ci waxtu woowu te ñoom jeex a tàmbali ci mbir yi te mu aju ci yeneen yëf jotaay boobu ñu leen digoon muy waxtaane Sëñ Tuubaa mu baax mi ak nekk gim nekkee woon gim nekkoon ci yenn jolof kañ la fa dem naka la fa nekkee woon ak ban diir la woon kañ la woon ak ya nga xamante ne xëy na ay xew-xew la yu fa xewee dinañ ko waxtaane ci jotaay bii bala ñu koy yëkkati incha allahu taala di ci ànd al imam sëriñ Aïssa Afia Gueye nga xam ne ku ngeen miin la lool ci jotaay yu mel nii rawatina bu jëmee ci tomb yu mel nii mooy jëmmi sëriñ bi ak wooteem bu tedd bii nga xam ne moom la woote ak njàngale mi nga xamante ne moom la jàngale nan lañuy ñuy gën a mën a def ba am ci ak gindiku ba sunu jariñu ci lii sëriñ bi indi te mooy xéewalam yi mooy sànafaan bi laa darari ñu mën cee xéewlu man cee jariñu kon moom lañuy ñuy ubbil mu daal tàmbali bu nuyoo ak yéen ba noppi waxtaanee nekk gi bi nekkoon ci yenn jolof ak yafa xew sëñ Aïssa bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana rasulillah bokk yi ñuy nuyu bokk fi teew yépp sun kilifa yi di nuyu itam waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiitul sunu waajur sëriñ Afiya so ak bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam yëpp ci liggéey bi di nuyu itam bokk yi ñuy seetaan di ndokkeel ñépp gannaaw bu ñu jiitalee ci ndokkeel Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci weeram wu màgg wu tedd wi nga xam ne weeram la wu ko ñëpp xame suñu borom defal ko ci lim mu ko ci defal ñaan sunu borom mu dolli ci moom ay mayam ak i leeram ak i ngërëmam ak i xéewalam te sàmmal ko ndonoom kon ni ko sëñ am di waxe waxtaan wi ñu santoon mooy nekkuk sëriñ bi Ceyeen Jolof ak jeexit yi nga xam ne am na ko ci yoonu morit ni ñu ko xamee ñun ñëpp Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci dundam gu màgg gu riis googu nga xam ne pàcc bu ci nekk rek warees na ko mën a waxtaane ci lu yaato yaato yaatu daaira bi nag am taxawaayu di ko xaaj ay xaaj di ko waxtaane ci yéen jolof nag xam nañ ne sëriñ bi mu ngi fi ñëw gannaaw boo xam ne dem na ci géej gi am fa diirub juróom-ñaari at yu tegal juróom-ñetti at yu manquis lëf yem fa am ñëw Sénégal yàggul lool ñu jëlewaat ko fi yóbbu ko gànnaar mu am fa 1903 ba 1907 euh, ci jamono jooju lañ ko fa jëlee nag indi ko Murid indi ko Sénégal def ko li ñu tuddee résidence surveillée ci Thièyène Jolof kon loolu dana laaj ñu xam résidence surveillée mooy lan ndax bari na lu ñu koy tudd te léeg-léeg duñ wax mooy lan résidence surveillée moom ci wàllug yoon ñoom sëñam di ñi ak ñi jàng wàllug yoon ñoom niñ koy xamle mooy yenn ci xeeti jëf yi nga xam ne xam na day wuuteeg euh, sàmm kaaraangeeg réew wala rek lépp lu xaw a niroog yu mel noonu ñu jàpp daal nit ki lii mu def kirim la boo xam ne mën naa laal jàmmi réew mi ba indi ci xajam-xajam wala dara léeg-léeg ñu mel noonu lañ koy faral di teg ci seen kaw wala ku ñu ragal ci moom loolu bokk nga xam mën naa am defu ko waaye ragal nañ ci moom mu def ko ñu teg ko ay daan yoo xam ne da koy xañ doxe coobareem ci wàllu tuxu ak dem ak dikk léeg-léeg ñu def ko ko ci tënk ko ci am réew na ko réew mi sañoo koo génn waaye sañ naa tuxu ci biir réew mi fu ko soobee léeg-léeg ñu def ko nit ki ci tënk ko ci ab gox boobaa moo gën a woyof gën a diis tuuti biirum réew ndax moo gën a yaatu waaye léeg-léeg ñu defaat bi gën a metti te mooy léeg-léeg itam ñu tënk nit ci barab nga xam ne dañ lay tënk ci kër rek wala ci dëkk nga xam ne sañoo fee jóg sëriñ bi nag radiyallahu anhu ñu bàyyi xel ne loolu lañ ko doon def sëriñ bi tënkuñ ko woon rek ci ne ko sañoo génn réew mi waaye biñ koy tënk ci ci yeen jolof sëñ te génn ci yeen jolof dem fenn sañu ko fenn rek sañu faa dem biñ ko fa jëlee ba indi ko njaareem gannaaw bi it njaareem googee dëkk ba sañu koo génn yi dem fenn Tuubaa gi sax xam nañu bëggoon na fay ñëw mënut sotti kon anam gi gën a metti googu lañ ko def googu nag mat naa xam kon lu waral ñu ñu def ko ko lan lan moo tax ñu def ko ko waaye laata loolu gannaaw sëriñ bi dafa njëkkoon a nekk gànnaar te xam nañ diir ba mu fa nekk ak na mu fa nekkee woon te gànnaar it bu ko fàttee résidence surveillée lañ ko fa defoon léeg-léeg ñun ñoo koy faral di wooye exil ñaareelu exil waaye boo demee ci li tubaab yi bind ñoom ci seen kayit yooyu résidence surveillée la ñuy tudd résidence surveillée ca Sahwatul Ma ak yu mel noonu loolu la tudd sëriñ bi sax it dafa mel ne moom ci jëmmam ci mbindam li mu waxal boppam daa mel ne day firndeel loolu loolu lu ma yëm la Sëriñ Tuubaa ni mu xereñee dafa mel ne ñun ñoo naan rek xëy ba nangam nangam waaye daa mel ne moom li mu wax dafa mel nangu koo tudde xëy ba wala boog li ma teewlu boog ci ay texte euh, léegi nag lu waral sëñ bi jëmam jóge résidence surveillée bañ ñu ko defoon ca njaari ca ca gànnaar ba ñëwaat ci réew mi ndax loolu duñ ko faral di waxtaane dañuy jekk-jekk rek ne nekk na gànnaar nangam at jëlee nañ ko fa ñëw na Sénégal léegi loolu ku ne mën na cee potoxlu wax lu ne lu lu ko soob ne moo sabab mu dellu si mën naa am nit mën naa sos ne mën naa am sëñ bi moo sàkku dem na ba sonn sàkku mu sàkkoo dellu si wala moo xaw a arrière tuuti gaa yi yërëm ko dellu si ko wala nangam fekk demewul noonu li ko tax a jógee gànnaar dellu si Sénégal ci jëmmam muy am réew ni nga xamee ne mbirum sëriñ bi moom ni ma koy waxee saa yu nekk saa yuñ koy jàngat faw am na wet goo xam ne faw ñu dugal ko ci bàyyi ko ci xel lool te xam na mooy la ci ëpp solo muy wàllu bàttin gi buñ ko jàngatee njàngatum rek nit kuñ jaarale fii dugal ko fii génne ko fii génnewaat ko fee rek loolu day woyof toy yi ba ëpp ndax dëgg-dëgg mbiram moom mbirum bàttin la loolu mooy li wér tey bàyyi ko xel ak xam ko moo lay may yenn yi nga mën ko comprendre bu dul loolu nit ki li daloon tubaab yi mën na ko dal ñàkk a dégg Sëñ Tuubaa nga xam ne léeg-léeg mu def jëf joo xam dañ ko jàppee ku féeteerlu te fekk aram sa ko xëy ñëw sax fu ñu féeteerloo du yitteem sax léeg-léeg ñu jàppee ku leen di provoqué te fekk loolu du yitteem xalaatu ko loolu bis bu ko defoon maqaama mi mu toll da koy daal di wàcc fi saa si ndax mooy kon defatu te yàlla lay tax kon faw ñu bàyyi xel loolu mooy tax ñu mën koo comprendre caanam googu it ak dellu seem mën ngaa wax ne boo ko doon tënk mën koo tënk ci benn sabab ci wàllu baatin te euh, daa waxoon ne man zanna sayri ghibba aami aksashi mitla masirira saami jayshashi sabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa tatibul ali lil umra lam yaku sayru euh, sayru siwa jaza man li yaqaada baadu waadan na jaza dafa waxoon ne ku jàpp ne sama dem gu mujj gii moo gu jëkk gee ñooyam mooy xamoo daan ne gu mujj gi lim doon rek mooy ñaari mbir la ñoo ko sabab benn bi mooy suñ boroom tatyibul tatyibul ali lil umra suñ boroom da ci doon teeyal sama dund bu dee ci ni ma ko dégge mooy suñ boroom dama doon neexal dama doon neexal neexal nag jubluwuma ci neexaluk am loo bëgg a jot sëñ am di di ko neexal pour jot ci yàlla moom du def loolu kenn ndax moom lépp waaye mooy def nga lu rëy lu am solo mu lay fay ba ci biir fay ga mu dolli ca loo xam ne ak ndefar la ci nañ ko daan tuddee maanaam ak yokk la goo xam ne ok mën naa am sax mënoon nañ caa bañ yegg waaye dañ ko yokk loolu yi bare bare bare wane na ko buñ ci duggee dañu yàggal waaye lam yëg séyra ak sasin siwaa jaza man li yaqaada wax waxda na jaza ak pay la ak pay gannaaw tatyib bi mënees na koo déggee ci gannaaw demu géej gi juróom-ñetti at yu manqué yooyu mu fa def juróom-ñetti at manqué tuuti la yu méttee métti yoo xam ne sëñ bi wax na la mu fa daj ci ay barab yu metti ba ñun sax nuñ koo dégg te ànd ak loolu bind na ci barab ne daje na fa ak ay jànkonteel ki jafe-jafe yoo xam ne rus na koo li ngir rus borom tabaaraka wa taala ak tegginu diggam ak moom kon mooy la mu fa daj kenn mënu ko natt suñ borom yóbbu ko ci barab bu bu baax bu sell ñu baax ñu sell nekk fa loolu day mel ne boo ko mu xaabale ak lee tatyib dëgg lay doon bi ci des mooy ak pay bokk ci pay yi liggéey bi nga xam ne moo ko jiitoon muy liggéeyub géej gi ak liggéey ba jiitoon sax liggéeyub géej gi loola ba mu matee gannaaw loola ab daayoo la laaj wala boog ab diir la fu mate rek kon mooy la wundu la ko yóbboon foofa loola jeex na kon ak desatam fa dootu am njariñ kon day daal dëpp ni nga xamee ne ak demam jigéen géej gi sababu baatin la am boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ba matee daa daal dëpp li koy gën a firndeel yii yëpp sax mooy yii sëñ bi wax maanaam loolu waxuma ak ñun ñii murid yi nga xam ne lu sëñ bi wax gëm nañ ko ñun waaye ñu may waxal mooy gëstukat bi nga xam ne xaj na moom day doxee ci norme yi gëstu noonu rek ak ni ko tubaab bi di jàngalee léeg-léeg surtout sax laay wax nga xam ne ku wax ku mën a doon nga sikk sàkk ci li mu wax loolu laa koy waxee ni ko tubaab bi jàngalee ñoom ñoom si ñoom di ñoo safurla waa réewum si ñoom di bokk waaw <laughs> ni koy jàngale nga xam ne nit ku mën a doon boo waxee rek nga sikk sàkk ci moom loolu du du du doxeenu lislaam waaye tubaab bi noonu lañuy jàngale kooku laay waxal ngir mu xam ne <clears throat> bu demoon ci histoire sëñ bi lu ñutu ko bu baax te setantal ko yii sëñ bi wax yépp dana gis lu ko firndeel ci wàllu zahir ndax ba ci barab yi mu nekk bu fay jógee sax ci wàllu zahir si sabab yoo ko fay jëlee boo koy xool day dem di dem di dem ba ci àgg yëf yi daal ni muy gaawee danga xam ne conditions yi moom am na lu ci dugg lu nekk ci biir waaye wurutoon mën a gaawee nii loola mooy wane dëggug li mu wax ci sababu baatin yi nga xam ne mooy waral lii xew di xew kon bi nga xamee ne dayo ba mu fa war a wala diir ba mu fa war a def ngir loolee ko suñu borom doon digg mu jot ca def na ko fa ak desam fa amatul njariñ kon mu daal di dëppaat daal di dellusiwaat ci réew mi la ca des mooy sababu zahir bi sababu zahir bi nag boo ko doon tënk moom danga naan mooy lenn ci njaboot gi muy ay mbokkam moom sëriñ bi ñu mbokkal ay rakkam ak yu ni mel ak lenn ci ay taalibeem ay jéego yuñ dox ci diggam ak tubaab yi ngir dox diggante bi ngir rek euh, loolu seen doxin la naka jekk loolu toujours ñu di ko wax ba tey Sëñ Tuubaa taalibeem yooyu mu amoon mooy ñoo ñu ko waroon ñu mënutoon a ñàkk lañ bu ñu amutoon du baax ndax sëñ bi tolluwaayam ak niveau bi mu ne ak fi tubaab yi ne mënut a déggante ak ñoom ñoom it mënuñ ko dégg Sëñ Tuubaa mu mën leen dégg du problème am waaye ñoom mënuñ ko dégg ñoom. gannaaw mënuñ koo dégg nag jëflanteek moom day jafe ci ñoom ndax waxtu wu nekk ñoom fi ñu toll rek lañu man mën lañ koy mën a gisee te sëñ bi it fi ne munta wàcc fekk si leen ak wàccam lu mu wàcc wàcc wàcc munta wàcc wàcc wàcc ba yegg si ci fekk si leen fi ñu toll ndax daa suufi bopp léegi faw mu am ñu nekk ci diggante bi ñoo xam ne moom mën nañu yéeg ak a wàcc loolu mooy rôle mag ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom nga xam ne saa yu situation bi tollee fenn fi rek ñoom ñooy daal di intervenir def yëfi nit ngir yëf yi mën a réglé wu yëfi nit laa koy tudde ndax suñ tubaab moom ci ay jëfam lu ci bari mën nga ne du yëfi nit du yëfi nit boo ko mën a waxee noonu du yëfi nit waaye ñoom ñooy ñëw def yëfi nit te luy may wax nii ku dellu ci menoon baaxil xadim xisab euh, Blaise Diagne bi ba mu ànd ak délégation bi ma àndaloon ñëw ci sëriñ bi ngir wàllu soldaar yi ñu doon soxla ci guerre mondiale bi boo demee ba ci mujj xissa ba sëñ Basiiru nettali na ca loola te loola ca làmmiñu Blaise la jógee kon ñooñu ñoo taxaw taxawaay yu ama am solo bind ab leetar boo xam ne biñ ko bindee ñi ngi ko bind ci njiitul walla ci signature sëñ Cheikh Coro Mbàkke di rakki sëriñ bi ak mbooleem mbokk yi nag ak mag ñu bari ñu yónnee leetar bi euh, ki nga xam ne mooy gouverneur général bu Sénégal gouverneur bi bi mu jotee ci leetar bi da koo daa di daa daa di bind moom it leetar ndax booba dañ caa def ab demande di wane ne dañuy sàkku daal sëriñ bi ñu delloosi ko ci réew mi may ko jox ko ndig may ko sañ-sañu mu delloosiwaat ci réew mi ndax nag yàgg na fa tey itam jafe-jafe yi bari na tàmbali naa jëm mag tuuti tey it taalibe yi dem di ko fekk it ña ngi fay jànkonte ay jafe-jafe yu méttee metti ba daal woy ga nekk foofu daal xaw naa doy waar te gisuñu it sax nag daanaka lu war a tee mor a mën a dëppaat ñëwaat nag biñ ko yónnee gouverneur général moom it mu bind lettre lettre bi mu bind mi ngi ko bind ci le 6 mars 1907 yónnee ko euh, ki nga xam ne moo doon commandant de cercle bu Trarza ci Mauritanie Trarza mooy goxu goxu Mauritanie bi féete ci wetu senegal ci jëm côté Rosso dig dig ab dig digal bu yaatoo yaatu la dugg ci biir lu yaatu ab gox la bu yaatu ki ko jiite woon nag nekk commandant cercle bi tudd ña ñu yónnee ko lettre bi ngir di ci wax ak moom ndax Trarza mooy gox bi sëriñ bi nekkoon ci Murtani diirub la mu fa nekk lépp génnul Trarza benn yoon Sarsara ak yooyu ngeen dégg yëpp ci biir Trarza la nekk bi mu ko ko yónnee mu jàngat ko ba noppi moom itam daal di koy yónnee kilifaam mooy commissaire bi nga xam ne moo yoroon gouvernement général bu suufus Mauritanie boole caag wax ca lam ca wax nag moom mi yor ndax moom moo gën a jonjoog sëñ bi moo gën a jege wax nag ne demande bi nga xam ne ay mbokkam demande nañ ko wax liñ ci wax wax itam ne fas jekk nañ pour joxe lépp luy xeeti garantie yu laaj ngir ñu delloosi ko ci réew mi tey lépp liñ ci tiit ak ragal itam garantie nañ ne moom delloosi ko ci gis mu ko ak lu yàgg-yàgg bi loolu amee euh, commissaire bi daal di jël lettre moom itam def ci am njàngatam ba mu noppee daal di bindaat daal di tontu leetar boo xam ne mi ngi ko yónnee ki yor colonie bu Sénégal muy gouverneur dañ euh, koy tuddee borom ndar ci ni ko wolof waxee. leetar boobu mu ngi ko yónnee gouverneur général mi ngi ko yónnee ci le 25 mars 1907 gannaaw boo xam ne la leetar bu waa jëlee waxoon na ca wax ju am solo moom it ndax wax ca wax na ca wax ja ne jàpp naa ne amul benn sabab bu mën a tee ñu mën a euh, bañ a nangu lii ñu sàkku seen càkkutéef lii daan na ndax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom ci tararsa gi mu nekk ñoo ko yilif jamono ju yàgg ji wax dëgg yàlla yaata ngi nii wax dëgg gisuñu lan ci moom lu ñu gis wala ñu gis ko ci dongaam yi nekk ak moom lu war a tax ñu jàpp ne warees ko bàyyi lu ñu tiit ci moom gisuñ ko wax dëgg yàlla daan na tey liñ soxla lépp ci ay jëflante ak yenn ndimbal yi ñu soxla léeg-léeg di ci jëflanteeg moom di ko sàkk ndimbal dañu ciy jàppale kem kàttanam kon moo tax jàpp naa ne benn ngànt war naa mën a bañ a am nangu loolu moom it yónnee boroom ndar leetar bi wax ko ci loolu ñu daal di jël dogalub ne kon li des mooy nañ fexe ba bu gannaaw day dellu si buy dellu si moom du doon dellu si goo xam ne dañ koy delloo si rek comme nañ ko defe woon 1902 nga xam ne moom ba mu ñibbisee booba daan ñibbisi dañ koo bàyyi mu dem boyal ko mu dem daarul ma naan léegi moom ba mu jóge ndar di dem moomam boppam fu ko neex lay dem gannaaw bi la coow yaamaat amaat ba ñu yóbbuwaat ko bii nag moom gannaaw loola xewoon na lii xew xewaat moo tax duñ ko mën a bàyyi noonu léegi ñu ne kon faw moom mbiram faw ñu tënk ko daal ci barab duñ ko bàyyi noonu rek coobare boppam léegi ci loolu lañ jëlee dogalub ne dana dellu si ci réew mi waaye buy dellu si nag day nekk ci euh, sous contrôle boo xam ne moom lañu mën a tuddee résidence surveillée maanaam kuñ tënk lay doon ci ay liberté am ak ay doxinam léegi foofu it xam nga lu lu lu lu yéeme ndax euh, li may wax ci Sëñ Tuubaa lu jiitu loolu moom xamoon na ak waaj a dëppam ngir dellusiwaat ci réew mi ba am na ay xew-xew yu xewoon Mauritanie yoo xam ne sëñ ba bam ba xew-xew ba jàllee ba muy dalal taalibe yeeg di dalal seen xel wax na leen ca ne balaa diir sàngam danañu fekk ci réew ma te booba lii lépp xewagut waxaguñu yëpp te nam ko waxee noonu la deme léegi kon loolu dañuy indi ci gannaaw bu loolu amee li waral kon ñu ne buñ ko indee ci réew mi dañ koy tënk ci résidence surveillée mooy mbooloo mu bari mi nga xam ne ñoo doon ñëw di ko fekk ci gànnaar mbooloo mu bari mi ndax buñ fàtte ne mujj gànnaar mbooloo mi mujj na bare bare bare bari ba jéggi dayoo ba jéggi dayoo laa wax ba nga xam ne weer wi nga xam ne ci la demande ñoom siñ siñ Cheikh bii di di di dem ci gouverneur rek weer wi ko jiitu Kayor commandant bu bu trarse boobu mooy wax doon na bindu leetar di wax ne day sàkku ñu may ko sañ-sañu moom sëñ bi ñu gën koo soreel gën koo jàll mu gën a ñoolax di ko maanaam mu jóge trarse ñu yóbbu ko fa ñu wax Fort Capelanie mu gën a sori ndax gis nañ ne mbooloo mi ni ñuy ñëwee bari na nangam ak nangam te dañuy perturber euh, ordre public bu réew mi nangam ak nangam ñi woon fii ci réew mi doon nañ bind nañ ay bind di jàmbat di wax ne faw daañ jël ay matuwaay ndax mbooloo mi ni ñu jógee Kajoor ak Bawol ak réew mi di dem Mauritanie waxtu wu nekk dana dem ba trouble à l'ordre public ni ñu ko ñoom suñ suñ am di di waxee loolu lay tàmbalee indi te loolu duñ ko bàyyi mu yàgg faaw ñu lijjanti ko nga xam ne jamono jooju jamono ju tàmbalee na la maanaam bokk na ci li may wax léegi ndax situation bu toll foofu bañ tàmbali naan nañ ko réglé nii mooy nañ ko gën a soril gën ko sànni ca kaw mu gën a ñoo lax ndiko ci weer wi ci la demande bi ñëw bi mu mat ñaari weer Sëriñ Tuubaa dugg na Sénégal loolu ci maanaam ci normal nii daal wurtu demee noonu daal wurtoon a gaawee noonu bu doon lu simple nii rek loo xam ne yëf yi nit rek nii rek wurta gaawee noonu lijjanti bi wurta gaawee noonu kon muy wane ne mbir yi lépp am na sabu baatin yu nekk ci gannaaw yoo xam ne mooy doxal liy dox ci kaw kon mbooloo mu bari mi waaye itam mbooloo mi it ndeysaan li ñuy jànkoonteel ci jafe-jafe waaye ñàkk gu ñàkk am xel mu dal ci sëriñ bi ndax ba booba it ak mbooloo mi ni mu mel ak ni mu toll ci gannaawam ak déggal geeg fonk geeg gëm gi ak moom it liñ gis ci moom ci ni mu mel ci wàllu diineem ak yooyu jenn jamono ju ñu am kóolute gu mat sëkk ci ne mën na fee nekk yu dund ba génn àdduna te du masa jekki-jekki déclaré na damay jihaat tey moom duñ ko gëmmu jàpp nañ ne waaw ah, ndax xam nga am na soo ko ko mas wax lu mel noonu naan ko sa yàlla ji nangam nangam ah lu mu la waxtaay ak yu mel noonu ndax eh, ndax gannaaw suñ bi noonu lay doxee ah. ok xam nga waa am na waaju ko laajoon ndax da nga mas jël ngaan naa dal suñ kaw mën ne ko ab surga doo ko laaj fu mu xëyee ëllëg danga koy laaj eh, nuñ koy waxeeti njaati géem nga koy laaj xam nga kooka daqut moo tax waaw ah, ndax mooy bis bu ndigalul njaatigee ñëwee ne jëlal ngaan naay da koy jël kooku nag xam nga duñ ko mën a wóolu duñ ko mën a wóolu lool kon yu mel noonu mën ngaa wax ne ci tënk mooy sabab yi waral ñu ne kon nañ ko def ci résidence surveillée ba du mën moom boppam nit ñi duñ jox ak moom ci genn anam gi te danañ ci ñëw léegi ci kanam biñ demee ba ci le 10 avril 1907 boobu ci la commandant de cercle bu Louga jot ndigal bataaxal boo xam ne mi ngi jóge ci gouverneur bu Sénégal mu jox ko ci ndigal ci ne ko na wut ci cercle boobu mu nekk muy cercle Louga nga xam ne Jolof ci biir la nekk na fa seet barab boo xam ne barab bu méngoog fu sëñ bi war a mën a nekk la ci ndiga jamono jooju la jot lettre boobu le 10 avril bi mu jotee lettre bi ci la 16 avril la tontuwaat gouverneur du Sénégal ci lettre boo xam ne wax na ko ca ne ko li may wax ci wàllu wutal wut barab boo xam ne Cheikh Ahmad Bamba dana ko danañ ko fa mën a yóbbu gannaaw jox nañ ko ndigal pour mu war a dellusiwaat ci réew mi maa ngi lay proposé barab boo xam ne ci Jolof ñu ngi koy wooye Thiéyène foofu it balaa ñoo jàll faw xam nga dañ naan résidence Serigne Touba ci yéen ci Jolof faw ñu xam ne Serigne Touba fi mu nekkoon ci biir fi mu nekkoon foofu ci Jolof doonu na mooy dëgg-dëgg ci waaye daa jegeeg ci yéen ñu koy tudde ci rek gannaaw aw lew la woo xam ne kenn nekku fa woon jege naag ci ñu koy tudde waaye doonu ne jëmmi ci yéen la nekkoon déedéet déedéet déedéet léegi mu ne ko fu ñu wax ci yéen euh, di war a tolloog dëkk bi ñu wax yang-yang lu toll ci fanweeri kilomètre ak juróom yang yang fala chef de canton bi nekkoon muy Bouna Albouri ca jamono jooja mu ne ko sax foofa buñ ko fa yóbboo dana mën a tax mu nekk ci euh, Bouna Albouri di ko bàyyi xel di ko surveiller moom itam waxtu wu nekk ngir ñu mën a xam lu mu nekk ak lu mu nekkul ne ko nag barab ba daal la ci ne mooy amul ndox waaye nag mën na faa ne mën na faa ne ndax am na suuf su yaatu su fa ne soo xam ne daañ ko ca mën a daggal 4 kilomètres carré nañ ko defale woon rakkam Cheikh ca ca Tuul mooy fee Touba Tuul muy baat bu doy waar boo xam ne kenn du ko miin waaw barab ba amul ndox waaye mën na faa nekk loolu mooy wane yéene ju ju ju doy waar ndax ci nit rek ndox fu mu nekkut nit nekk fa day jafe rawat na ab jullit nga xam ne moom soxlawu ndox naanum kese rek waaye da ko soxlaa yu bare bare bi loolu amee euh, jokkalaatu bu gudd gudd am na ci seen diggante ñoom dañu bañ ci dugg mu ñu gën guddal ba ni nga xamee ne nii la ndigal li amee ndigal li itam ñu jox Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu këyit wi nga xam ne mooy jox sëriñ bi sañ-sañu mu sañ jóge gànnaar ñëwaat ci réewum Sénégal Cheikh Ibra radiyallahu anhu euh, moom it ngir ci gar baat bu gàtt ku ko xam xam ko taxawaay yu bari yoo xam ne taxaw na ko ci diggante sëñ bi ak tubaab yi ca lu jiitu géej gaag gannaaw géej géeg yoonu daaru rahma daaru manaan weeg ba fii yëpp loolu bu ci nekk rek xew bu ci nekk taxaw na ci taxawaay yu rëy yoo xam ne dee su ko fàtte mukk buñ delloo ci raw na dim sëñ Mat Lamin Jóob Dagana mi ngi ciy nettali te moom ca ña fekkee la bokk ndax jamono jooju Cheikh Ibrahima ñëw ci sëriñ bi boobu moom ma nga gànnaar ci sëriñ bi ndax xumaag la ñëwee sëñ Tuubaa moom sëñ Mat Lamin Jóob mu ne guddi gàmmo atum 1325 ci gàddaay gi war a dëppoog 25 avril 1907 ci la Cheikh Ibra ñëw ci guddi gàmmo gi lañ yegg si ci sëriñ bi ci xumaag indil ko leetar bi nga xam ne ci lañ koy joxe sañ-sañoom mu saña a dëppaat ñibbi si Sénégal Cheikh bi mu ñëw dafa ñëw ngir indil si ko leetar bi waaye itam Euh, booba doonu ne booba rek xajal ak sëñ bi doog a yëg ndax am na ci archive yi foo xam ne da gis waa ji gouverneur bu Sénégal bi muy bindaat euh, commissaire bi yor suufu Mauritanie maa ngi ko cay wax ba mu waxee ba ca daaneel ba ba wax fi ko waajal ak lépp maa ngi cay wax naan ko nag léegi Ahmadou Bamba na nga koy yëgale information bi mu xam ko léegi nag danaa la wax kañ lañ koy kii pour mu jógee fara pour ñëw. bi Ibra bi mu ñëw daa kon ci euh, jubluwaayam ñëwaale ngir itam moom. moom bu sëñ bi bu sëñ bi jàpp ci wàccaayu sëñ bi waaw ngir lam laaj yépp ci ay wàccaay ay jumtukaay yu koy indéeg yu mel noonu yooyu la doon taxawaale ba bi mu ñëwee ñu ko sëñ mat lamin nettale radiallahu anhu euh, sëriñ bi semaine la fa toogaat boo xam ne diirub semaine bi la tax mu toog fa mooy ngir waaj ak di yebal ay ndaw ci wëllëre yu bari yi mu amoon murtani ñun ñëpp xam ko fu ne mu yebal fay ndaw ngir di leen tàggu ndax rek ndeysaan yëg-yëg bi xam ne am nañ ko ci ñoom ak fonk geeg cër bi ñu ko jox ak ni mu toll ci ñoom du jékki-jékki rek jóg noonu dem ba loola amee sëriñ bi daal di jóge kon Mauritanie jaar jaar waay yim jaar chronologie bi daañu ko wax ci lu tënku rek mi ngi jóge suufu Mauritanie ci mujjug weeru gàmmo la fa jóge dugg senegal wàcc ci benn dëkk bu ñuy wax Gaaya Gaaya ma nga fële biir Gànjool jageeg Murten lool mooy dëkk bi nga xam ne Cheikh Sidi Hadji Malick Sy fa la àdduna ay nijaayam foofu lañ dëkk ba mu fa jógee jaar Dagana Dagana am na fa ay fan ñu taral ko fi teraanga yu ne nañ ko defe woon rek ca bañ ko yóbbu Murten ca yoonu dem wa ba mu fay jógee sëñ mat Lamin nettal na ko ne ak bëccëg la fa jóge dugg gaal jëm ndar bi mu yegg si ndar guddi la fa yegg si wàcc kër Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu ndax bu ñu fàtte ne ba muy jógee daarul man naan di dem ndar ba mu jógee ndar ba mu yeggee ndar it ba niñ koy joxee ndigalul mu faa jógee dem Mauritanie diggante boobu kër Cheikh Ibrahima Fall la daloon ca ndar bi mu demaa bi mu jógewaatee Mauritanie ñibbisi it gannaaw jàpp juróom foofu la wàccaat ca ndar nekk fa ay fan yam fa nekk diggante ba mu fa nekk ca la yabale woon sëñ Mor Absalo sëñ Mor Absalo bokkoon ci mag ñi nekkoon ak sëñ bi gànnaar nekk ak moom lu yàgg yàgg yàgg ba ci njaareem sax nekkoon ak moom sëriñ bi yebal ko daarul ma naan ngir mu woole ko maam Thierno Birahim <clears throat> mu ñëw woo si maam Thierno mu ñëw fekk sëriñ bi ndar bis boobu nga xam ne ci la sëriñ maam Thierno bis bi maam Thierno yegg see ndar yegg see sëriñ bi ci bis boobu bi la mbaaxaan ñëw ci sëriñ bi <laughs> ci bis boobu la fa mbaaxaan ñëw muy bis bu doy waar ndax fii sëriñ bi ni ko sëñ Baara nettalee radiyallahu anhu ci dalilu xaayir fi sëñ bi toog ak maam na di waxtaan ak moom ak di ko laaj yoonam ak njaboot ga foofu lañ jekk-jekk euh, ki ci bunt bi daal di wax sëñ bi ne ko Cheikh Ibra mooy yëglu sëñ bi na ko na yegg si Cheikh Ibra yegg si ànd ak mbaaxaan daana ko kii de mbaaxaana daa de daf ko njëkk daa njëkk dugg wax ko ne ko mbaaxaan laa àndal mooy ñëw sëñ bi na ko na yegg si xaj na yàlla daana mu ci moom aw yiw loolu la sëñ loolu sëñ bu wax mu niroog lool la xewoon Seydina Omar ak Yonent bi aleyhi salaatu wa bi mu ko waxee Cheikh Ibra daal di koy woo mu ñëw dugg si daa dugg rek sumu mbaxana mi daal di ñëw jox loxo sëñ bi nuyu ko ndeysaan triste lool Cheikh Ibra daal di koy taxaw moom it taxawaay bu rafet ne ko mbaxana daal a ngi nii li ko tax a ñëw du lan lu may tuub ak jégglu rek ak rëccu booleem lépp loo xam ne masoon na ko def ndax bu ñu fàtte ne ñeenti jàpp juróom ci gannaaw la ñëwoon daaru mën naan gii def fi jëf joo ne kenn du ko nettali waaw ci xeetu jëf ju doy war joo xam ne neexut a wax euh, mu ne ko mu ngi di tuub di jéglu di di di lépp loo xam ne defoon na ko mbaaxaan foofa la jaayanteeg Sëriñ Tuubaa fa saasa jébbalu ci sëriñ bi ni ñu ko waxee sëriñ bi soppeewu turam tudde ko Abdul Ghafour boole kook Cheikh Ibra Fall nga xam ne ci jabootam la bokk bokkoon ba ni mu génnee àdduna mbaaxaan mujj bokk ci yoon wi ba ay njabootam a ngi fi ñu ngi ñu denc fii ci ci ci ci barab yi barabam boo weesoo barabu Cheikh Ibrahima Fall tuuti jëm ci karaw tuuti rek balaa ngaa yegg guy taxe yaakaar naa foofu la nekk gis naa ko moo wax ne kon foofu la mbaaxaan jébbuloo ci sëriñ bi ci diggante boobu yi jamono jooju sëriñ bi nekk ndar nag ba jóge fa ñëw Louga wàcc kër alaaji sàmba soxna foofa yéen la yabale ay ndaw gannaaw ci yéen la jëm yabal ay ndaw ñu jiitu ju ko ci yéen ngir bu ñu demee def fa ab wàccuwaay kër goo xam ne bu ñu ñëwee fa la ñu nekk ak taxawaay yañ faroo taxaw ba mu fa jógee jaar dëkk bu ñuy wax gaañaax jóge fa jaar kër sëñ Daaru Asan Njaay jóge fa jaar kokki ca kër maami sëñ Basiru sëñ Madu euh, ko waxeeti sëñ Ahmadou Maam Diop ba mu fa jógee jaar dëkk bu ñuy wax Doriga jóge fa continué nag doog a yegg ci foofu la jógee directement dem ci bi mu yegg ci yéen ngi fa yegg ci mujjug weeru rakki gàmmu muy weer rabiul awal kon mooy boo xoolee dangay gis ne fi sëriñ bi jógee Mauritanie ak fi mu yegg ci yéen day toll ci weer wala weeru manqué ay fan yu néew néew bi mu yeggee ci nag dëkk kër gam fa njëkkoon a sanc nga xam ne mooy googu njaboot gi demoon tabaxi ko euh, defari ko laata mu yegsi sëriñ bi mu yegsee kër goo la tudde daaru rahman daaru rahman la ko tudde nekk fa ak njaboot gi bi mu fa yegsee tuuti it ni mu baaxoo def te mat di fàttali waxtu ne bind na lettre yónnee ko commandant de cercle bu bu Louga ngir xamal ko ne ko foofee ñu ko dogal 4 kilomètres carrés yooyu ñu ko dogal ci Thiéyène yegg na fa ba sanc na fa kër gam gam fa def yegg na daal nekk na fa loolu lu mat di fàttali la te danaa koy wax ne man nay bàyyi xel ndax léeg-léeg nit ñi ba ci murit gi bari na ñooñ ñi niñ déggee suñ tubaab diggam ak tubaab yi bokkut ak ni mu demee te loolu daa mat a dégg bu baax nag ndax bu dul loolu rek léeg-léeg mën naa tax nga am information yoo xam da ngay mel ne ku am lu la jaaxal wala yooyu fekk yaa déggewutoo mbir yi ni nga ko war a déggee mooy Sëñ Tuubaa daa mus sa doon koo xam ne nekk ab provocateur la boo xam ne maanaam nekk fi provoqué lay def ak di bëgg ay fitna fu tubaab yi fii la mën a fee la loolu mus sa nekk loolu lu ma taxam la nitu jàmm la koo xam ne waxtu ne jàmm ko gënal lu mën a am ndax xam na ne li mu li muy liggéey moom dana ko am loolu xam na ko maanaam objectif am yim yim yim dëgmal ak li ko tax a jóg li muy def moom ni ko rëdd baaraamam yi leeral nu ko raw ni la ko leeral ne dana ci yegg loolu amu ci benn sikki sàkk léegi kooku nag jërul muy di di di sóobu ay xeex yu du jeex ak fitna di lor ay nit ak yeneen loolu jëru ko ndax lim soxla gannaaw dana jot mën naa jaar ci yoon wu jàmme ba yegg ca lam bëgg moo am ko ñëpp it jariñu ba noppi itam nekk jàmm ndax buñ ñu fàtte ne bokk na ci li sëñ Basiiru wax ne loolu sëriñ bi doon na ko xaw a sikk tuuti ci doxiinu lenn ci ñu baax ñu fi jaaroon te jiitu woon ko te doon xeexal lislaam ak jëfal lislaam waaye nag jaare ko ci anam goo xam ne ay jihaad yu bari yoo xam ne ay deret yu bari tuur na ci yu mel noonu mu jàpp ne mënoon naa ñàkk ndax mënoon nañoo jëfandikoo anam goo xam ne liñ soxla daañ ko am te loolu mën naa bañ a am deret yu bari yi ca mën naa bañ a moo tax jamono ju nekk jëflante bu rafet lay jëflante ñoom ñoom ñooy jëflante ak moom jëflante bu ñaaw waaye jëflante bu rafet rek lay def bu ñu fàtte ne Touba gii suñ Mbàkke bi sa wax na ne mi ngi ci menoon baaxal xadim bi mu fiy jógee di sanc ji Mbàkke bari Jolof yónni na ko moom suñ Mbàkke Ndar ci gouverneur général pour mu xam ne xamal ko ne ko day jógee Touba dem sanc ji Mbàkke bari Jolof ak na mu fay demee lépp dog ko wax ba mu leer ba gouverneur bëgg ci lool ndax xaj na foogutoon loolu ndax ni mu doon tàmbalee di contrôler ay mbiram ak ni mu ko doon déggee jàpputoon ne loolu dana am waaye suñ Touba foofu moom kuy dox ci jàmm la li muy def it rek tax mu di ko def li ci nag kay mooy da du doxkatu jàmm boo xam ne day day def li wolof naan maslaa bañ maasal la loolu moom du ko def fayda ju mat sëkk la koy àndal yoo xam ne ay principe am moom ak i pas-pasam doo ci laal lu toll ne di dee ci weej boo ko ci laalee rek jàkkaarloo moom fi saasi waaye bu dul loolu dañuy dox ci jàmm ak salaam kenn ku nekk fi mu jëm mu xam ko moo tax bi mu yegsee it loolu la def daal di tàmbal nag wéy nekk ci ab liggéeyam ndax Sëñ Tuubaa aw nekkin na moom wenn nekkin la fu mu mën a ne ni ma ko doon waxee Sëñ benn mission la mission bi mooy maanaam ab ab nu ma ko mën a waxe wenn sas la sas bi mooy tarbiyatul muridin loolu mooy mission bi Sëñ Tuubaa ci kaw suuf wala boog nga ne Sëñ Tuubaa léppam boo ko doon xaaj ñaari wàll la alxidma ak tarbiya loolu muy aju ci relation ak yonent bi aleyhi salaatu ak relation am ak mbindeef yi relation am ak yonente bi aleyhi salaatu xidma la ba mu jeex tàkk relation am ak mbindeef yi muy nit ñi muy jëflanteel ak jinne yi ci lañ bokk bu leen ci génne tarbiya la ndax rabbi asxaabaka bil himma lañ ko waxoon loola nag keroo bis bañ ko ko joxee ba keroo bis bi mu ñibbisee fii mos cee jóg loolu lu mat a xel la am na ci ay gëstukat ak ay ñoo xam dañuy wax naan sëñ bi ñetti at la ñetti at rek la tarbiya loolu wérut amul dara ci histoire la koy saxal te lépp histoire da ko weddi boole ci ñetteel rek la tërbiyee loolu kon mooy ñetteel yi xanaa kon mënut a gudd di gudd ba jógee Mbàkke ba Mbàkke Kajoor ba bi mu dem ci géej gi loolu fukkeet ak nangam la diggante boobu du ñetteet diggante boobu fukkeet la ak benn ñaar du ñetteet aywa léegi kon ñi mu nekkaloon Tuubaa lu mu leen doon defal ndax tërbiyee la wala lu mu doon ba mu fi jógee ñëw nangami weer yi mu nekk daarul man naan ñoom fa nekk loon lu mu leen doon defal ba mu fa jógee dem gànnaar ñeenti at ak nangam yom fa nekk ñoom fa nekk lu mu leen doon defal léegi kon man kon daal da bëgg a wax ne lu ëpp fanweer at ak nangam ci dunduk siñ bi nekkul ci tërbiya kon ci ñettee dong la ko def lu des lépp kon ci lu mu ne loolu njuumte lu rëy rëy la ñun nag daa bokk suñuy jafe-jafe léeg-léeg ci wàllu gëstu am Issa Gueye day toog rek dajale ay yëf jàngat xool na benn texte ak benn texte liir na ko lii la ko jox léegi bu koy wax du wax ne kat lii de nii laa ko dégge waaye dana nangam la loolu rek la nangam la dogu ci léegi bu ko defee ñu nit ñoo amaat melokaanu buñ ñëwee duñ ne isaa nii la ko déggee rek waaye dañ naan nangam rek la léegi ñu tàmbali di ci topp di ko nett nettali noonu bu ko defee ab diir bu gàtt mu mujj doon musallam loo xam ne kenn dootu xool te fekk moom mi ko doon wax mën naa am bu doxaatee tuuti gis lu weddi la mu doon jàpp lu mu doon jàpp la nii rek waaye doonul gudd lu dëgër kon moo tax faaw loolu ñu di ko bàyyi xel Sëriñ Tuubaa dundum gépp tërbiye la ko def waaye tërbiye gi nag barab bu mu nekk bu ne day contextualiser ndigal lim yor ak barab bi mu nekk ak na mu koy méngaleeg moom am na ko fay jëfandikoo loolu rek mooy mbir mi. léegi bi mu ñëwee ci jolof wéyal tërbiye bi mu nekkoon ak ci jumtukaay yi mu ko doon defee tërbiye bi man ngaa wax ne boo ko doon tënk mën ngaa wax ne tërbiye bi lépp. ci ñetti wasaa'il la ko doon jëfandikoo ñetti wasila benn wasila bi mooy jéem a feral seeni bakkan ci lépp lu bakkan soxla ak lu bakkan laaj loola xiifal ba ca la bokk maral ba ca la bokk néewal nelaw yi ca la bokk néewal wax ca la bokk néewalub jaxasoo ca la bokk yooyu yépp ñu xam rek yooyu moom Sëñ Tuubaa musa tàggoog moom fu mu mas a nekkit borom yitte yu fa nekk di tër bi yow ca loola la leen di sóob ndax ca loola la ñu nekk lu ñëpp maasee di nekk lay lay doon it nag maanaam ñëpp a ciy maase ne du doon loolu dañ naan léegi si ñam di moom dañ koo baddil moom day añ ba suur day reer ba day reer ba suur day naan ba màndi léegi isaa moom moom yooyu ay théorie la yu ñu bëgg a saxal ay wérut loolu saxul ci tasawuf loolu wérut léegi safurlaa xawma boog mu wér boog bi ci des mooy at tarbiyatu bil xidma te mooy yëngu yi ñu daan yëngu ngir di ko liggéeyal moom sëriñ bi yëngu yi nag ci ay xeet yu bare bare bare bare lañ ko doon defee yoo xam ne moom it yaatu na benn am na ñoo xam ne sëriñ bi farale woon ñuy jàngale ñaari xeeti njàngale yëpp ñoo xam ne alxuraan rek la ñuy jàngale ak ñoo xam ne xam-xam rek la ñuy jàngale ndax suñ tubaab it fu mu masane gis nañ lettre yi nga xam ne yónnee na ko maam na doon ko wax mu yebal foofa ay ndaw ñoo xam ne ña fa nekk te tollu jàng alxuraan daan leen jàngal alxuraan ak ñoo xam ne it ñett ñoo xam ne ñu jekku xam-xami diine la ñu doon te ko te mën a jàngale bu ko defee ña fa nekk te tollu jàng ñu jàngal leen seen diine ñoom itam kon loolu moom noonu doon doxee noonu it noonu la ko doon defee waaye itam ndax bu ñu fàtte ne am na ñoo xam ne ku mel ne la Mame Lamine Diop na mi may tudd bi sëñ bi jógee gànnaar ñëwu ci yéen daa nekk moom ci te booba am njàngam matagul foofu la doon mottali am njàngam euh, wax nañ ne sëñ bi sëñ Tuubaa ko jàngal ma Mawaahibul Quddus man naa amu jàngale ko ci yéen wala muy njaareem en tout cas moo ko jàngal sëñ Mustafaa Abdurahmaan Lo rahmatullahi alayhi nettal na sëñ Basiiru moo ko wax bi mu tollu jàng Mawaahibul Quddus ne ko demal sëñ Madu Lamin Jóob jàngal la ko ne ko ku ko dégg la ndax sëñ Tuubaa ko jàngalal boppam noonu la doon def ñu yor wàllu njàng mi ak ñu yor wàllu njàngum xam-xam mi am ñoo xam ne dañuy nekk ca tool yi di bay di bay mbay ma it sëriñ bi amoon na fa ab tool bu mag a mag a mag a mag tool ba nag am na ñaari version waaye man version bi ma am maa ngi ko jëlee sëriñ Modou Mamoun Niang rahmatullahi alayhi mu jëlee ko ci ñaafe Niang waajuram te da koo fekke ok mujj ci yéen jolof sax moo nekkoon jëwriñu tool ba far moo ko doonoon sëñ mu daan wax ne tool ba sëriñ bi mi ngi ko tudde woon bustaanul aarifin aw rawdu rayahin aw faydu akabir salihin ñetti tur yi la boole woon ko ko aw aw aw bustaanul aarifin aw rawdu rayahin aw faydu am na beneen version boo xam ne day wax ne euh, ay tool la woon yu bokkut yu sëriñ bi sancoon benn bu nekk mu tudde ko benn tur en tout cas man version bi laa am léegi lu mën a xew si ñaa fi moom may wax nekkoon na ca mujj ga ba sëñ Modou Mamoun rahmatullahi alayhi daa nettali ne amoon na sax aw jiw wu fa yore woon wu mu daan barkeeloo woo xam ne ba ak mujjam euh, buñ tolloo ci bët di bëgg a séb lu bari ci kilifa yu mag yi yoon wi yi nga xam ne ay baykat yu bari lu ñu bay lañ daana tudd ku mel ni sëñ Mandumbe Xabaan daana yónnee ci ñaafe ngir mu tànk ko ci jiw woowee lu mu barkeeloo ci tool yi hmm. léegi ci ci jiw woowu la ko jëlee woon waaw kon mbay mi mu ngi noonu am ñoo xam ne dañuy root ngir li ñuy soxla ci wàllum ndox ndax du woon barab bu waa ji waxoon na ko léegi ne na ndox amu fa am ñoo xam ne dañuy nekk ci wàllu ya ñu tabax muy sàkket yaag defaraat yaag feteñ yaag yooyu ak ñi nga xam ne ñooy wuti mataka taxan ak ñi nga xam ne seen liggéey mi ngi jëm ci wàllu mbind ñii di sotti ay ka di bind ay kaamil ñii di sotti ay téere xam-xam ak sotti xasida yeeg yu ni mel yooyu yëpp kon ay xeeti liggéey la yoo xam ne yu ñu doon yëngoo la yoo xam ne sëñ bi da ko doon yëngaloo ay nit yu ci nekk am ñu ca féete am ñoo xam yenn yoo xam ne ay nit ñi dañ koy boole <coughs> waaye mu yëngu boo xam dañ koy yëngoo ngir mu bokk ci leen di tàggat ndax sëñ Basiru waxoon na ci mu noon baaxil xadim ne sëñ bi ñi daan ñëw ci moom di tër bi yow gannaaw bu mu leen gënee tënk ci jëfandikoo faratay suñu boroom yi ndax moom balaa nga ne am ne fa balaa nga bëgg doonu murit ba naan da ngay saadiq faaw nga doonu jullit dëgg ba noppi faaw nag ngay jëfandikoo ndigal yàlla yi nga xam ne moom moo ko gàll ci kaw ñëpp bu ko defee loola ca la jiitu nee na bu ca noppee teg ca sunan yaag ya ca aju ak mustahabaat yi muy yuñ sopp ak sunna yi bu ca loolu buñ jógee ca loolu nag nee na la muy njëkk a waat nag mooy jëfi cër yi nga xam ne jëf yu yu yu yu yu yu yu yu juyoog bakkan lay doon te doon yoo xam ne itam léegi day xaw a diis ci yaram ba fàww nit ki dana laaj mu am as lëf ci tàggat bakkanam ngir mën koo def ndax du neex ci bakkan mu ne loola bokk na dem jublu woon mooy ngir aw nitam muy waa réew mi dañoo bindoo tàyyeel loolu seen bind la dafa yàgg ci ñoom dafa xóot ci ñoom tàyyeel loolu nag léeg-léeg li may wax xam nga nit léeg-léeg day yor jikko jox du xam fi na léeg-léeg ñi dañ leen jaaxal waa suñu Basiiru moom li mu wax ah kay problème bi mooy da ngay taayal yow si jëm te doo yëg ne da ngaa taayal léegi bu ko defee da jàpp ne yow taayaloo kon taayal gi ñuy wax dana lay jaaxal fu mu fu mu ne te fekk boo ko lijjanti woon sa bopp dëgg yëg ne mi ngi ci yow taayal googu nag mu ne te lépp lu yàqu ci diine rek gannaaw bakkan daanaka taayal a koy sos moo koy jur kon faw ñu tàggale nit ñi ak taayal seeni cër ñu sawar seeni cër itam euh, laggi ci euh, yëngu ak cawarte làggi itam ci jëf lu baax waaye itam beneen secret nekkaat ci mooy ndax xidma bi loolu li tax di ko wax mooy bu kenn jàpp ne rek boo bu suñu am di jógoon tey di woote euh, teg daaraam nit ñi ñëw ne tër di tërweewu léegi day jël rek ay xeeti liggéey yu ko soob jox leen gaa yi nekk ci kër kër yi mën nañ cee nekk ba junni at duñ gis dara duñ yëg dara ndax dafa laaj yow mi leen di liggéeyloo di leen xidmaloo nga am mbóot mu nekk ci yow moo xam ne xidma boobee day tax muy rogalaan di jóge ci sa xol di dem ci seeni xol maanaam li bëgg a wax mooy xidma bi maanaam nga xidmaal Sëriñ Tuubaa benn minute bokkut rek du tudd sax Sëriñ Tuubaa waaye nga xidmaal nitug yàlla laa bëgg benn minute ab murabbi bokkut ak nga xidmaal am Issa Gueye téeméeraat bokkun kii moom mën koo xidmaal téeméeraat mën nga caa jële nag forme bu baax yaramu sawar waaye du am benn mbóot mu mi def ci sa xol boo xam ne dalay defar loolu lu ma taxam la xidma bi du xidma rek du du yëngatu nii rek du yëngatu rek daa am lu ci nekk ci biir bu ñu fàtte ne sëriñ bi waxoon na ne bokk na ci lii far ca masaliku jinaan ma juumut bokk na ci lii fari bàkkaar liggéeyal nitug yàlla ku baax daa bokk ci lay fari bàkkaar kon la ca desit mooy a tarbiyatu bi dikr a tarbiyatu bi dikr moom it mbirama moo xam ne naka jekk musta tàggook moom ndax ci fondement yi mbir mi la bokk zikr yi ku ko tudd alxuraan nga njëkk tudd balaa nga tudd dara alxuraan ji moom du dog kaamilam boobee nga xam ne daaree kaamilam joojee noonu xam nga am na sax ñu jàpp ne ci yenn jolof la sëñ bi tàmbalee am ñu jàpp ne murtani jiitu na yooyu yëpp daaray kaamil ji Sëriñ Tuubaa fi la ko baay bi mu dem ci gi te ko dem ci raw na dim da ko ci gis bi muy dem ci géej gi fi la ko baax maam na wéyal ko gannaawam doole ci salaatante na jinaa junni yoon ñu di ko wéyal ba ni sëriñ bi dellu jiitu na dem ak bi ci géej gi lu yàgg yàgg la foofa it mu wéyal ko am na jamono joo xam ne bu ma juumut ca jamono joo xam ne sëñ Ibrahima Fari Mbàkke jiite woon na daal di kamit foofee ca ca ceen jolof kon xaside yi noonu waxtu wu nekk ñu ngi koy jàng ko yëkkati ak ñi koy jàng njàngum kenn alwirdul maxuus itam noonu ndax moom it bu ñu fàtte ne fekk na sëriñ bi ci ay at yu néew yu ko jiitu ci la jot wérdu wi jële ko ci borom tabaraka wa taala mu jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon xeetu dikri yëpp rek ak xeetu tudd yàlla yëpp ak yeneen ak yeneen sax yu ñu tuddut moom it mu cay mu koy booleeg yeneen ñaari jumtukaay yee di ko tërbiyaa ñi nga xam ne ñoo nekk ci loxoom di wut yàlla foofa ca Ceyeen Jolof bokk na ca la fa xew buñ ko doon mën a waxee noonu mbooloo mi fi daan ñëw waxtu ne mbooloo mu bari mu bari moo xam ne tàmbali gi moom mbooloo mi bariwut ndax tubaab bi dañ koo jafeeloon dañ koo jafeeloon ca tàmbali bi dañ ne moom ku fay dem ku fay dem dangay fay impôt ba mat sëkk doog faa dem benn moom sëñ bi jëme mi ñu tënkal ko limub nangami nit la sañ a recevoir ci bis suñ ci recevoir lu ko léegi kon loolu jafe na ba noppi ndax kenn du bëgg a dem it du yokkal sëñ bi lim bi mu war a recevoir loolu benn bi du ko bëgg léegi mu daal di jafe waaye teewut loola sëñ Tuubaa ni sëñ Basiiru di wax ci Minanu Baaxil Xadim dafa mel ne moom daa am acier bu yàlla def ci biir yaramam boo xam ne fu mu ne mooy xëcc nit ñi maanaam leer la goo xam ne mooy xëcc nit ñi ba fu mu nekk ak fu mu romb barab yi ñu tudd ne fi la jaar bi mu jógee gànnaar ñëw ñëw Ceyeen dañ cee jaar nag ngir ngir lu gàtt waaye bar na ca barab bu ca ne rek ba mu fa yeggee xew aw xew la aw xew la woo xam ne maanaam dëkk ba moom nit ñi tëlatuñ dara lu may moom noonu noonu la yàlla def ci moom ñi ko xamoon ak ñi ko xamut ak ñi di dongaam ak ñi koy doog gis seeg ñëpp ñëpp dañu tàggoog seen sago ku ne dana am yitte ngir gis ko ak ngir barkeelu ci moom ak genre kon mbooloo mi bari lool waaye bi ñu tegee bii ngir jafeel dañoo dem tuuti jafe-jafe bi ñu amoon ci murid yi ñoom bu njëkk mooy ñu lànk ne duñ fay impôt léegi dañoo gis nit ñi fay impôt pour cent ngir bëgg dem ci yéen rek fekk bi impôt yi moom amatu jafe-jafe dañ koy fay normalement ngir dem fay seen impôt ñëw joxe seenu ticket bu wane ne fay nañ daal dem ci yéen mu jeex léegi euh, commandant de cercle bu Louga daal di bindub lettre gouverneur général wan ko ne ko nag gannaaw bi nga xamee ne tegoon nañ charte yooyu ngir bëgg a xaw a compliquer yëf yi tuuti dafa mel ne bi ñu demee tuuti yëf yi ak soppi ko am na ci ndax fi ne murid yi ñu ngi fay impôt cent pour cent moom benn jafe-jafe amatul loolu ñoom ñëpp yëg nañ ko daan ne ko nag ngir nag gën taral saytu geeg contrôlé gi ñu koy contrôlé ak sorale gi ñu koy sorale ak mbooloo mi ndax daan ci ñëw ci kanam liñ jublu dëgg dëgg ci yóbbu gi ñu yóbbu sëñ bi ceen mu ne ngir loolu dana laaj ñu wut ay mm, doxin yu gën a yu gën a tar tuuti yu gën a metti daal di proposer moom ku ku doy waar la proposition bi proposition bu doy war la boo xam ne daf caa wane ne léegi fu nit mën a nekkati moom ci Sénégal gépp ba Sénégal jeex ak foo mën a dëkk da fay impôt ba noppi boo fayee impôt ba noppi ba ñoom liñ ci bëgg a gañe xam nga dañ ko ci gañewaale ndax dañ cee ñor lool tubaab ak xaalis moom <laughs> seen mbir noonu lay demee ku ne da ngay fay impôt waaye boo fayee impôt ba noppi faw dangay ñëw ba ci gouverneur euh, commandant de cercle bu Louga nga présenté wu ak foo mën a dëkk ci Sénégal loolu xam nga lu jafe la. xoolal ku dëkk Saalum war a jëm ci yeen Jolof war a dem jaar nii dem ba Louga ak booba nii jamono mel par force nga dem fa doog a jógee Louga nag seq euh, soqaat ab yóbbal ngir jëm ci yenn Jolof loolu ay tukki tukki tukki la léegi boo ñëwee foofa di présenté wu da nga indi ticket bi wane ne fay nga lemp ba mat ak gox ba nga jóge waaye danga ci boole it ñu laaj la ay laaj yu bare da ngay tontu lépp leeral ko yow da nga wax ci sa bopp ak laa ju ci yow ba mu leer da nga wax it dem bii ngay dem ci yéen yoon wi sag dem ak dikk temps bi nu muy tolloo da nga koy wax maanaam fii ak diirub ñetti fan fii ak diirub 48 heures wala 72 heures laa fii dem ci yéen dikkaat fi loola boo ci ëppalee dara da nga am ay jafe-jafe loolu xam nga neexut a lu metti la maanaam boo koy wax risque ngay jël léegi boole ci itam ndax mooy boo fa demee. léegi bu yàlla dogalee nga yegg fa sëñ bi téye la fa ñetti fan yu ca dolli ko boo yegg see da nga am jafe boo fekkoon lu fa xew nga ne naa ko xaarit du sotti faaw nga dëppaat da nga ca boole it boo àndee ay nit ñi nga àndal da ngay tudd seeni tur bañ xam ko nu mu doon da ciy boole it dee daa am loo yóbbul sëriñ bi addiye ja lu mu mën a doon ak nu mu mën a toll da nga koy wax ba mu jeex bu dee xaalis nga wax ne xaalis bi nii la toll bu dee ay jur yooyu yóbbu wala ay sànqal wala nangam da nga koy wax lépp da nga koy ba mu leer ak yu bare bare bari yoo xam dañ leen koo tënkaloon faw danga koy def boo ko defee nag ba noppi jaar fi nga jaar doog a dem nag ci daal di cee waxaale sax lu doy war ne léegi loolu sax it dana tax bi xam nga dañoo doy war dana tax léegi ñi leen daan dogaale ci yoon weeg dogaale gi dal donga yi ci yoon weeg yooyu dana gën a woyof dootu dootu ko jar waaw ndax léegi moom dañu xam yoon wi ñëpp yi jar dootu jar di rëbb nit ñi ci ay yoo ay xura ki yoon yu sori maanaam ku fi ñëw présenté wu dañu xam fi mu jaar fi mu jaar ndax loolu daa bokkoon sart yi itinéraire bi danga koy wax fi ngay jaar pour jëm ci yéen danga koy wax léegi yow da ngay neexali jënti xam nga kooku moom ku neexali jënt lay doon ok waaye yàlla dogal na loola it yàqu dara ca lañ bëggoon a yàq teewut murid yi di ko defee noonu ñu ko doon waxee rek mbooloo mi di ñëw waxtu wu di di fay seeni lempo di joxe garantie yi ñu war a joxe yëpp ngir dem ci yéen bu ñu fa benn fan sax ñoo am ko fa tëdd ci biir loolu moo tax it mu dul jeex fekk nañ sëriñ bi ci yéen jolof mbooloo mu bare bare bare bare bare mujj na yegg sax ci ndax fi ne sart bu njëkk ba muy euh, nuñ koy waxeeti euh, lañ njëkkoon a wax ci ne dañ fay dem sart bi mooy da nga joxe impôt matul ñetti weer mbooloo mi bari bari gi ñu yeggee ci jëlaat décision bu mujj bi te bi ñu ko defee it mujj na yegg ci sax mujjug sëriñ bi ay nit sax ñoo xam ne du ñu ay taalibe dañ ci ay kilifa dem nañ ci yéen fekk fa sëriñ bi dafa mel ne ñu ngi wax ne waxtu wi kon ma gaaw tënk ci lu gaaw a gaaw. Hmm. xaj na rek du jar kon di tuddati lenn ci ña fa dem ndax day guddal waaye ku dem ci téere bi Rawdu Rayaahiin génne euh, Cheikh Ahmad Bamba Abdoulaye wa Xaadimu Rasuulihi da nga fa fekk rapport boobu ñu bind ci juin 1907 da nga ca gis li mu mbooloo mu bare bare bare bare bare ñi nga xam ne dañ faa dem ak seen bopp ak ñoo xam ne demuñu waaye dañoo yónnee loolu mbooloo mu bari la rapport boo ca demee ka njëkk a tudd ca njëlbeenu rapport ba nga xam ne moo fa yónnee njëkk a yónnee ca weer woowa sëñ Mor Jaara la tudd nañ fa wax itam la mu fa yónnee ci àddiyee ci sëriñ bi kon jamono jooju ci ceeyin jolof sëriñ bi taalif fa lu bare bare taalif yi nag xam nga faaw ñu fàttali koy ne Hakshash muy 1325 jooju sëriñ bi ñëwee ceeyin mooy at mi tàmbalee tëj jiit tàmbalewaat yeesal tëj jiit gi nag ci lan ngir bu kenn jaawale tëj jiitu Sëriñ Tuubaa comme nekk ab mu jëddit loola moom daa jóg doon ko mooy ci ay ay eh, associé rek ba liggéey ba doora rek la ko doon waaye tëj gii li sëñ bi jublu mooy tëj jiidul mu àllafaat taalif yi nga xam ne taalifoon na ko laata géej gi yooyu yëpp la doon taalifaat di ko yeesalaat yi ci doon ay téere xam-xam moo tax gis nga ko gis nañ ay masaalikul jinaan gis nga mu taa mu taalifaat ko eh, gisaguñ bu mat bi xaj na mat na wala matut en tout cas gisuñ bu mat bi waaye taalifaat na ko ak yeneen ak yeneen yu bare bare ci ñu xam waaye foofa it taalif na fa lu bari ci ay xasida xasida yi itam am na ci yoo xam moom fa la ko defee lu mel ne xasida mel minal xaq jaal xaqu foofu la ko Sëñ Tuubaa taalifee euh, ba léegi boo demee Sëñ Mor Absalo ma doon tudd léegi njabootam ca fa ñuy wax ndam euh, ndaam ndaam Busra ca boori Sanusi da nga fa fekk xasida gi sëñ bindoon maanaam original ba ma nga fa ñu fonk ko lool te sàmm ko ndeysaan Euh, sëñ bi waxoon na ca ne ku ko gis suñ borom musal ko ci sawara falaq taalifi xasida ak ihdi jami ihdi jami an asirata mustaqim itam muy alhaadi yi ak yeneen ak yeneen sëñ baara boo demee ci daylul xaayir tudd na fa ab lim ci xasida yoo xam ne xaj na dañuy jàpp ne moom yooya taalifu ko fa taalifu taalif gu bees waaye da ko daa bokk ci am fa yeesale lu mel ne xasiid ak jaalibatu maraaxib tudd na ko fa tudd na fa lu mel ne jazbul xuluub jaz boo xam nga sëñ bi taalifoon na ko laata géej gi tudd na fa itam lu mel ne muqaddimaat lam daax ak yeneen ak yeneen ci ay xasida yoo xam ne sëñ mat la sëñ baara tudd na ko ci dayul xayir ci tërbiye bi mbooloo mu bari yewwi koo foofa ci ceyeen jolof ñoo xam ne fa lañ yewwi koo am na ci ñoo xam ne dañoo tàmbalee seenu tërbiye gànnaar mottalee su ko ceyeen sëriñ bi yeewee leen ceyeen bokk na ca sëñ Mor Soxna Mbacke astaghfirullah alazim sëñ Ibrahima Fari Mbacke ci ñi nekkoon a sëriñ bi ca gànnaar la bokk bi mu ñëwee ci yéen Jolof yeggale facteur bi am sëriñ bi fa la ko wàccee yawi ko sëñ Mor Soxna Mbacke di taawu Mamor Jaara moom it ci yéen Jolof la ko bi yewee wax na ñoom ñaar ñii ñoom ñaar la sëriñ bi yewee ndoo ci jenn jamono niki ñi nga xam ne yeggale nañ fi seen tarbiya moom mbooloo la ñu bare bare bari bokk na ca sëñ Mor Absa Lo moom ma tuddoon léegi sëñ Afee Ñang ma doon sëñ Mat Lamin Jóob Dagana ak ñeneen ak ñeneen ñu bari lañ ndax sëñ tubaa xam nga tërbiye boo xoolee day mel ne fekkante daf ciy am léeg-léeg am na ñoo xam ne dañoo tërbiye wu diir bu yàgg lool am ñoo xam dañoo tërbiye diir bu gàtt am ñoo xam dañoo tërbiye diir boo xam dafa xaw a digg doomu tuuti lu mën a xew ñu tërbiyoo ci ci yéen jolof am nañ mise bu rëy ndax sëñ Mat Lamin Jóob ca Annabdal Mubaraka nettal na fa wax joo xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko wax mooy dafa séddale ñi ñi ànd ak sëriñ bi ñetti tabaqa ñetti kuréel ñetti tolluwaay wax ca ñoom la wax ca ñoom kuréel bu njëkk ba mooy ña ajoo woon ci sëriñ bi jaayante ak moom la tàmbalee ko ca woote Mbàkke Kajoor ba ba ci bi sëriñ bi dem ci géej gi ñoo ñooy wuur bu njëkk ba nee na sëñ Mbàkke nee na ko ñooña moom musumaa xam musumaa dégg ñu mel na ñoom ñooña ñooña moom raw nañ kon daal ne ñaareel bi mooy ñi ànd sëriñ bi gannaaw géej gi ba ci mujjug ci yéen jolof kon mooy gànnaar ja ak ci yéen jolof daal ne ñooñu yëgguñ ca ñu njëkk ña waaye raw na ñu dul ñoom loolu suñu bakk bi sa wax wax ne ñu njëkk ña Sëriñ bu doon lu ñu mos a ko mos dama naan mos na fóon nañ ko ba mu xeeñ leen ñu mos ko ba mu saf leen daal ne ñu ñaareel ñii nag mosuñ ko ba mu saf leen waaye fóon nañ ko ba mu xeeñ leen léegi loolu lépp nag daal di cay teg lam ca teg ca lu mujj la loolu nag toujours ni koy waxee duñu ko dégg rek ala yi nii maanaam ni ko ñenn ñu bëgg a déggee xam nga ñun dañoo xaw a xarfiyaa tuuti looloo ñuy indi léeg-léeg ñoo am problème ci yorub texte fii ba càgg ñu war a seet mbedd muñ dugg pour jéem koo dégg te fekk buñ ko déggee woon ni ko waxee rek mu simple wut ne daa bëgg a wax ne buñ doon topp kenn par kenn ña fa nekk ñëpp nii lay demee déedéet déedéet loolu demeewut noonu ndax ku ne xam na ñoo xam ne ci ñi tërbiyewoo ci sëriñ bi ca Mbàkke ca njaareem la njaareem googu ñuy wax am na ñu fa tërbiyewoo ci sëriñ bi ñoo xam ne ña leen xamoon ñëpp ràññatle leen ak ña tërbiyewoo woon ca Mbàkke Kajoor ndax seenu tool ndax mbir yi dëgg-dëgg yitte la ak pas-pas yitte ak pas-pas nag ak xéwalug yàlla ak feexam loolu moom suñ borom a ko def ci fu ko soob sëñ Mat Lamin Jóob mii nettal lii bu ñu fàtte ne gis nga ci waa fi waa ñii la bokk ñu ci tërbiye wu mujj gànnaar la ak ci yéen continué ba njaaree moom wàccu ci tërbiye safar benn yoon ba ni sëñ bi jógee te sëñ Mat Lamin ku xam-xam ne ca tolluwaayu kawee la tolloo ñu bari itam jaayante fa ak sëñ bi bokk na ci sëñ Marina Silla muy sëñ Masamba Xari Silla doomi sëñ Mandume Mar Silla mi nga xam ne wala sëñ Marina Silla woon doon nattangoom foofu la te ci sëriñ bi ak ñeneen ci waa euh, waa waa Mirina loo xam ne toll nañ ci juróom-ñaari nit ñoo xam ne ñëwandoo nañ sëñ bi jébbalu ci moom di ay kàngam niki noonu itam boroom xam-xam bu mag bi waykat bu mag bu ñu xam ñun ñëpp muy sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu ci yéen Jolof la jébbaloo ci sëriñ bi niki noonu ndax moom it lu ko jiitu booba dafa fekk mu doon ndaw booba ndaw la ndax bu ñu fàttee boo demee gisaw Sakoor jéeri ji mi ngi nettali bi sëñ bi jógee Daarul Manaan jëm Ndar war a escale bu fanaan fa xëy dem Njaareem mi ngi wax naan ca ngoon googee xam nga sëñ mi ngi génn daru ma naan gannaaw tisbaar ca jaar jàkk yi sëñ Murtala ji ci daru alam xabir ci kii bi école bi julee fa takkusaan mi ngi wax na ca takkusaan yi suuf mi ngi romb na baayam ca tool ba fekk na moom moom ma nga fa moom itam booba booba ndaw la moo tax bi sëñ bi ñekkee ci yéen foofu la si jébbaloo ci bi boroom xam bu mag sëñ Boubacar Pende Pende Yëri Fall di sëtub Xaali Amar Fall doonoon kàngam lu mag ci tariixa Xadriya ci jamonoom mag la sëñ Boubacar Pendéeri ndax moom ak sëriñ bi 1825 la gën a àdduna maa gën a sëñ bi ay yu bare bari lu ëpp ñaar fukki at ak nangam sëñ Boubacar Pendéeri foofu la jëbloo ci sëriñ bi ci ci yeen Jolof booba mag la doomam it di fóore ju mag sëñ Omar Batoor Fall mooy waajur sëñ Mourtala Fall Mboro menn suñ waajur ñu bari xam nañ ko moom it foofa la jëbloo ci sëriñ bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ay kàngam yu bari sëñ ma ñaaw sil la menn mu siiw mu kàng ma foofu la jëbuloo sëriñ bi ci Ceyeen Jolof ak ñu bare bare bare bari kon sëriñ bi nekk fa nekkin wii ak doxin wii ak jëf yu bari yi nga xam ne xam nañ ko yëpp te bari ci yoo xam ne sax neexuta tudd ndax li ñuy seetlu mooy Ceyeen Jolof boo delloo ci sun delluwaay yi fi nekk muy référence yi ñu am da gis ne Ceyeen Jolof dafa mel ne yaataluñ ci lu ñu ci wax loolu feeñ na iroow na dim boo demee barab yi ci des yëpp fu ci ne dana ca wax lu yaatu waaye ci yéen moom dafa mel ni li ci ñëw ci ay ñetti paas ñeenti paas day toll bariwut xaj na li xikmatin wala li illatin ma euh, day mel ni sëñ baara sax daal moo ci xaw a wax tuuti yoo xam ne euh, ñi ci des taxutoon ñu andi ko hmm. kon ba ni nga xamee ne ni la tubaab yi mujj nag ci seen doyguwaar gis ne ci yéen geekat la leen fa taxoon yóbbu sëriñ bi yii la woon mooy ca njëlbeen dañoo jëloon politique gu génne Sëñ Tuubaa réew mi fu ñu nee nangam rek ñu jël génne ko réew mu jeex bañ koy yóbbu 1895 dañ ne woon dañ koy yóbbu Gabon ba mu génn àdduna wala ñu fàtte boog li muy woote nga xam ne bu fi ñëwaatee doo tekki dara yàlla faru leen ca ba mu ñëwaat ci réew mi te mënuñ ci dara maanaam ni ñu ko indiwaatee ci réew mi sax ñoom sax xamuñ ko daanaka bi mu ñëwaatee li xew xewaat ñu yóbbuwaat ko gànnaar. ba mu ñëwaat wax nañ ko léegi ci gannaaw léegi bi ñu ko indiwaatee ñu changé politique nag léegi jël politique bees politique bi ñu jël léegi mooy léegi desetu génne fii lay ne waaye bu fi nekkee nag dañu fexe ba dañ koy wër ndomba la ñuy def léegi fexe ba fu mu ne duñ ko may fu mu yekkoog nakam danañ fexe ba fu mu yenn ñoo ko fay yendal fu mu fanaan ñoo ko fay fanaanal duñ ko bàyyi comme murtani nga xam ne ba mu fa nekkee sañoon nay tuxu jóge fii dem fee jóge fee dem fee déedéet déedéet fii moom dañuy ñëw rek ne ko dëkk bi doog génn mu jeex biñ ko indee ci noonu la demee mu nekk fa diir bi mu fa nekk euh, contrôle bi ñu taral ko lool ba jéggi dayo lu fa ne ñu xam ko yabal ci yéen ay agent secret ay agent secret lañu fa yabal yu bari yoo xam ne boo delloo ci rapport bii moo la koy xamal sax ndax kilifa gi ñëw ci Sëñ Tuubaa di ko siyaare si agent secret yoo xam ne da ngay xam ne dañoo dem ñenn ñi sol mbubum bëkk néeg ñenn ñi sol mbubum lu ne ba jege sëñ bi ndax kilifa gi ñëw ci sëñ Tuubaa di ko siyaare si addiyee jam koy jox ak na muy toogeek sëñ bi ak la muy wax ak moom ka koy xam jege lool moo tax mën koo xam loolu nag yàgg na ci ñoom faw ñu baddu fi ay ndaw yoo xam ne dañuy ñëw sol yére murit bokk ci yëf yi comme Omar Ñang lañ ko defoon ci Daaru Manaan mu ñëw ne day jébbalu yëkkati am joxe wax li mu wax lépp waaye sëñ bi teel koo tontu te yëgul ne tontu na ko ci nuyoo ba rek yu mel ni itam amoon na ci yéen jolof ñoom ci biir rapport yi wax nañ ci loolu seen agence secret yi tudd nañ lu jëm ci seen biir waaye ci nit mujj na it tàmbalee amub rax te loolu it am na ci rapport boo xam ne feeñ na ca ndax waa ji wax naa wax ba wane limub la fa nekk ci ay néeg limub góor ña fa ne nam toll jigéen ña fa nekk ñëpp nam toll waaye wax ca yitam ba wane na nag am na fa nag gaa yoo xam ne seen bopp lañ fa nekkal seen bopp lañ fa nekkal waaw kon day mel ne boo ko seetloo da ngay gis ne li mujj am njaareem ba tax sëñ mbakki bu si di wax loolu muy wax ci mujjug ci yéen googee la tàmbalee nag di màgg yi law léegi euh, biñ demee ba nga xam nag tiit nañ ne kat dañ mel ne ànd ak loolu lépp sëriñ bi liñ bëggoon ci moom sotti wut léegi nañ wut mëneen pexe te mooy moom gannaaw raw na mënee su ko wëlbateeti léegi nañ fexe ba sàkk pexe moom ci gaa yi ànd ak moom ñoom moom ñu ngi ci yor mënees nee na dogale ca lañ ko yëkkate mu euh, Ceyeen Jolof andi ko njaareem muy lu gudd gudd loo xam ne sëriñ bi jaar na jaar waa yu bari ba mu jógee Ceyeen dem euh, yandu ji kër mbel kër Fari Kewe jóge fa jaar kàdd balloo ji fanaan fa jóge fa jaar Touba continuer dem Daaru Alimul Xabiir bi mu jaar Touba fekk na gëj na Touba mi ngi fi gëj 1880 mi ngi fi gëj 2000 safrla 1000 diggante 1903 diggante boobu nekkee Daaru Manaan am na fi diggante boo xam ne sëñ bi jógeen Daaru Manaan ñëw na Touba seet si dëkk bi diggante bu gàtt. xam nga yooyu da ci am yoo xam ne dafa mel ne dañ ko dul wax loolu waaye am na mooy même bi sëriñ bi jógee Mbàkke Bari bi mu jógee ci géej gi ñëw Daaru Salaam wax nañ ne ci biir fani ngan gi am na bis boo xam ne daa woo sëñ Daam Abdourahmane Lo sëñ Mbàkke Buso sëñ Mandumbe ànd ak ñoom dem siyaare ji Mamoor Jaara ah. léegi bi nga xamee ne euh, jóge na foofu mu jaar bi mu yegsee Touba sëñ Modou Mamoun Niang nettali na ne rahmatullah afa ñang moo ko wax ne ko te mi ngi bokkoon ci ñaanoon sëriñ bi mu jógee Thièyène jëm Njaaréem bi sëriñ bi ñëwee ba jógee dëkk bi nu mu tuddati kaddu balloo ji jaar yoonu xàll jolof wii noonu la ko daan junjee ne ba mu yegsee bay toll fële ca kaw xàll wa nga xam ne mi ngi làng ak Touba ndeysaan ak xelam nekk ci Touba ak ni ko nammee ci la suñu borom waxante ak moom wax ak moom ni mu ko baaxoo rek marxala bu mu toll bu nekk suñu borom day wax ak moom wax ak moom ne ko dëkk moom aram na ci moom mu xool ko ak bëtam nga xam ne fi saa si daa daal di sëgg ci kaw fas wi noonu rek dëpp jëm di wéyal am njàngam alxuraanam ba ni mu demee ba génn côté mbal jëm ca kaw ba nga xam ne weesu na dëkk beeg lépp lu caaju doog a siggiwaat dem jaar daaru alimul xabir fanaan fa jóge fa kon ne dem jaareem euh, yegg fa ci waxtu 5 ci ngoon nekk fa nag ni mu fa nekkee nga xam ne xaj na beneen yoon du ñàkk euh, daayira bi waxtaane waat ko incha allahu taala kon daal loolu mooy tënkuk nekku sëriñ bi ci ci yéen ci gàttal jeexit yi mu am nag ci yoonu murit xanaa ganaa waxtu yi xat na ba ëpp damay tënk rek ci ñaar yu gàtt benn bi mooy nekkam ci yéen jolof bokk na ci lim jeexital yoon wi gën a yaatu gën a tas lool loolu xam ne mënuma cee dugg loolu damay gën a guddal waaye bokk na ci it sanc yi mag ñi doon sanc ay dëkk muy sanc ay dëkki murit foofu dafa dafa mel na yëngu bi dafa gën a am doole ba xam na ñu bari ci mag ñoo xam ne foofu lañ sëñ bi yeewee bi mu leen yeewee daf leen a joxañ barab sàngam ngeen ñu dem fa sanc fa loolu mbooloo mu bare bare bare la euh, amit jeexit yu dooy waar joxam xam ne faw moom la ñu tëjee ndax lu am solo la ndax jeexitalut ci murid dong waaye daa jeexital ci ñoom ba jeexital ci réew mépp muy Ceyeen Jolof nag fi la suñu borom defee woon xéewal gu rëy mooy pon mi doon jaay ci réew mi dem ba lambu ba tubaab yi bindal ko seen bopp 1911 ci bulletin de l'office colonial boo ci demee page cent 1911 lañu bind di wax ne fi ne nii am pon daa lamb ci réew mi pon mi jaratut te li ko waral mooy maara bu bu am doole bu influent bu nekk fële ci ceen jolof ñu koy Ahmadou Bamba moom moo waral pon mi jaratut ndax ci ay njàngaleem da koy tere nit ñi topp ko ca ak jeexit ji am ci ñoom ba tax na am pon jaratut ci réew mi loolu lu am solo la lu mat a feeñal ci Sëñ Tuubaa li mu def ci al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar te loolu lépp tolluwaayam may ko ko diggante bu gàtt mu fexe ba jeexital ci nit ñi ba li nit ñi tàmmoon miin ko nga xam ne poon moom du woon mbir yi rek ci jamono jooju du woon mbir yi Samba Sura Bali si waaye kilifa yu bari ñu mag dañ ko doon def ndax dañ ko jàppoon lu dagan dem ba am sax ay ay kuréel yoo xam ne ay kuréeli diine boo leen di te loolu mi nga am ba tey boo demee waxtaan ak ñoom waxtaan ak yow waxtaan wu xóot dañ lay théoriser di la wax ay wax yoo xam ne doo xam lu mu doon. maanaam ba dañ lay gëmloo sax ne la maanaam jëfandikoo pon ci yenn anam yi daa am niveau bu mu yóbbu sa ruuxaani yaag yeneen ak yeneen ak yeneen suñ Tuubaa nag fekk na ca ca gànnaar la iftaawoon ne zaatu duxaani tajuru ila zaati duxaan saxaar sii day yóbboo ci saxaar su mag sax mooy ku ko bàyyiwul sawar rek yan ci musal kon ñu tëje foofu di ñaan suñu borom mu fayal ñu sëriñ bi di santaat bu baax di gërëm tey jéglu nag ci ñàkk na soog mbir mi Eh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf eh, ci waxtaanu wu am solo lool eh, waxtaan wi neexaay bi daal tax sax daanaka li ñu waroon tënk ci waxtu daanaka weesu nañ ko bu yàgg waaye doo ko yëg ndax yàggut fi mu ne. waaye ñàkk yàgg gi neexiitu waxiin wi ak li ñuy wax ci suñ tubaab bu baax mi moo tax ndax doo ko doo doo ko doo ko doo ko yëg sax li ñuy wax ci moom eh, day mel ne day xaw a stoppé waxtu wi yow doo yëg ne mi ngi guddi sax waaye fekk na guddi na bu yàgg jërëjëf waxtaan wi am na solo lool eh, day mel ne ci yéen lu ko neex la lool day day feeñ ci kii bi ni muy neexul wax gi day mel ne yëg na ne yëg na ne nekk gi bi nekkoon foofu ak euh, gëstu yi mu ciy gëstu am na fu mu egg ci moom ci boppam loolu nag lu am solo la mooy ndax euh, sëñ Tuubaa baax mii niñ ko niñ ko war a gëstoo daa war a egg ci fépp foo xamante ne nekk na fa buñ koy tudd wërta yam ak foo xamante ne sëñ Tuubaa jaaru fa nekku fa loolu dafa war a daa daa bokk ci xamante dañ ko war a bàyyi xel bu baax maanaam fu sëñ Tuubaa jaar nekk fa yemut ak fu Sëñ Tuubaa jaaru nekku fa loolu yemuñu bu leen tudd itam waruñoo am eh, wax na ci eh, li waral Sëñ Tuubaa nekkoon fa sabab yi leeral na ko wax na nag am na ci wàllu goo xamante ne day mel ne ñu bari dañ koy bëgg di di di di woyofal ngir xëy na eh, naqare waxtaane gi ndax doo ci xam lu leer muy mbirum baatin mi mbirum baatin waaye nag dafa am ay xew-xew walla ay mbir yoo xamante ne day wane dëggantaan ne yëf yi du mbirum saahir rek ndax buñ ko doon topp ci ni nga xamante ne noonu la war a demee yëf yu mënta demee nii maanaam yéenuwul maanaa ni ma koy waxee maanaam suñu tubaab daa bëri ci moom loo xam ne yéenuwul maanaa waaye yi yéenuwul maanaa noonu nag la ko la tax yéenuwul maanaa mooy mbirum baatin ma moo tax am ay mbir yoo xamante ne dañ ciy jàngee rek ne mooy bu ñu bu ñu tàyyalut ci am jàngat dañ ci yëgee ne yëf yi yeneen yëf a ngi ci yoo xamante ne bokkut ak rek yiñ mën a làmb di ko daj nii wala ñu koy xool di ko gis te loolu dafa bari ci mbirum Sëñ Tuubaa te nag bu ci bu daanaka bu ci génnee rek Sëñ Tuubaa day yem ak ñeneen ñi ci des te yemuñu te yemuñu kon loolu lu lu lu ama am solo la ndax junju na ci ne wax ne sëriñ bi njëkk ñuy def seen yoonal googu ndax Sëñ Tuubaa li ko li fi ko yàlla xalal mu war faa jaar da koy wuutal lu koy yoonal mooy bind yi ñuy bind ak muraasalaat yi wan am maam Sëñ Tuubaa def nañ ko nii bind nañ kee ni mbokkam yooyu dajaloo woon bind ngir ñu def ko nangam xam nga yóbbu ñu ko naroon yóbbu njëkk Mauritanie Madagascar dañuy taafantaloo ci Seex Sidiya sàkku na mu ñëw fa bind na nangam waaye loolu ay yoonal la waaye li yàlla dogal ci ne foofu la war a jaar ak digal gi mu ko digal muy dox te ba mu jugee la ko waxoon loola mooy li ko yoonal mooy faaw ñu wutal ko rek aw yoon waaye dëgg dëgg mbir ma mooy moom ku yàlla di wommat la di ko jaarloo di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi loolu mooy li wér moom te loola baatinu kese la moom du leneen kon junj na yi nga xamante ne ay ay yoonal la yuy wane eh, lay jàppandal la ko yàlla digal ci mu def ko mbokkam yooyu bind mu jaar ci jaaruwaay yi te loolu maqaam boo mën toll ci sëñ bi da ngay gis ne loolu da koy da koy waral leeral na ko léegi moom lay Sëñ Issa di junj ci nit ñuy jàngalee Sëñ Tuubaa ak relation bi mu amoon ak tubaab bi dafa wuute dëggantaan ak ni mbir yi demee woon maam war ne Sëñ Tuubaa rek ku daan xëqanteeg tubaab bi la buñ ne fii guddi gi fii la mu ne fee laay bëccëgoo mel na demee noonu Sëñ Tuubaa li ñu woowee la discipline citoyenne da ko amoon ci moom ba noppi da ci doon tàggat ñi nga xamante ne ñoom la ñoom la ki yoon boo demee ci yi da nga koy da nga ko ciy fekk jumaa ji bi mu koy bëgg a tabax dafa dafa dafa jaar ci yoon yi nga xamante ne moom la ñu war a jaar ngir loolu mën a sotti mooy discipline citoyenne boobu fu mën a toog da koy da koy moom boo jalgatiwut li dox digganteem ak boroomam ndigal yooyu rek doo ko daj maanaam respecté gi mu respecté loolu itam war nañ koo jàngat bu baax dañ mel ne ñun dañoo jàpp ne maam ak ak murite wala ab sañ-sañ wala am nangam mooy wan ne Sëñ Tuubaa moom ku féttaru woon la wala yow sax ci jëm bopp nga jàpp ne ak féeteru dëgg-dëgg mooy ak am fulla te loolu lu wuuteeg ni Sëñ Tuubaa doon doxee la maam lu mu doon def di ko bind di ko yaxal di ko jaarale ci aw yoon ba ba ba mel ne yoon woowa loolu ak yoonal la waaye digganteem ak boromam la ko yàlla digal rek moom lay def loolu tubaab yi xamoon nañ ko ba koy laaj naan ko sa yàlla ji lu mu wax ak yooyu sëñ sa junj na ko loolu tamit lu ñu war di jàngat la ci doxiinu sëñ bi ndax léeg-léeg mu am confusion maanaam ak jaawale di ci am mu mel ne sëñ bi day bind tuwaab yi di leen kii yooyu lu tax mu leen di bind kon nag moom daa waroon a daa waroon a am rek ak doogu ci nangam ak yooyu fekk demeewu noonu dëgg-dëgg nit ku ku yàlla di wommat da ngaa war a am loo xam ne da koy teg ci yoonal ndax bu jàngalewut noona ñeneen ñim yilif moo tax te ñëpp mënuñoo jaar ci noona moo tax mu mu yoonal ko yonent bi aleyhi salaatu salaam noonu noonu doon doxee ñi doon bind di leen wax azimu ruum di leen nangam di def nang bu jëfandikoo woon rek la digganteem ak boroomam xëy na du demee noonu gis ngeen ni mu doon ni mu doon ni mu doon ni mu doon doxalee loolu Sëñ Tuubaa ci ci ci lu mat a jàngat ci digganteem ak tubaab bi ci la bokk jàpp ne eh, doon toon rek a bañkat noonu ni ñu koy jàngalee war ne maanaam résistant la boo xamante ne da juyoo woon rek tubaab bi nekk ci àll bi lu ko nu ko sentiree di ko defee noonu demeewul noonu suuf sax bu ko daan bu ko daan bu jëfandikoo faw day xool na nga xamante ne noonu lañ jàppee ne noonu lañ tërali yoon ci société bi mu respecté ko door ko mën a jëfandikoo maanaam Sëñ Tuubaa du kenn mën a jam ci anam goo loolu ci matak Sëñ Tuubaa gi la bokk loolu lu lu mat a bàyyi xel la eh, biñ décidé ci ne dañ koy dañ koy dañ koy indiwaat nga xamante ne décidé nañ jaarale ko ci aw yoonal noonu ñu ko waxee mu ànd ak nag dogalub yàlla bi ndax eh, Sëñ Isaa wax na ko waxoon nañ ña fa nekkoon ne leen nëgëni déwén ñu fekk ci réew ma te lii ma leen di wax ni ngeen koy gisee bu ëllëg li ma leen wax goon bu ëllëgee yowmal xiyaam li ngeen di gisee lii noonu ngeen di gisee bu ëllëgee yowmal xiyaam la ma leen dégg loolu ci garantie yi nga xamante ne sëñ bi waxoon te na mu ko waxee woon noonu lañ kon loolu day day day gën a firndeel ba tey ba tey ba tey lu mel noonu te waaw dellu si ne fii ak booba kenn du faatu dem gaa yi mu ko doon wax sax dañoo jàpp ne méttiitu foofa <laughs> xoma nañ dañ fa nekkee woon day mel ne moo ko wax gaa yi jàpp ne xëy na da dañ koy defalee noonu rek <laughs> Ah. daal di feraat mu daal di daal di faatu waaw feebaraat bu feebaraat am jaarale yoon rek waaye daanaka mën nañu extra mu daal di faatu waaye jaarale yoon googu dañ ko war a bàyyi xel ma am mbir ñu koy jaarale ci yoon loolu mu du xëtt yoon jàdd day tegu caaw yoon daa am solo suñ tuwaa noonu defoon ah, même li ko li muy li muy jubóog boromam yëpp di teg mbiri ci yoon loolu lu am solo la xëtt xëttaaw yoon du du nu murit loolu war nañ ko cee jàngat tubaab yi itam sëñ Issa leer na ko ci njëlbeen mooy nañ jàpp ne ñoom li ñu doon def donte ak jalgate la dañ koy jéem a jaarale ci yoon loolu itam lu mat a xel la moom ñoom dañuy jalgati ci aqi sëñ bi waaye dañ koy ci turu yoon lañ koy jalgate <laughs> mooy maanaam buñ koy buñ koy téye fenn dañ koy jaarale ci des voies juridiques mooy li ñuy wax ci ci seen ci seen législation ñoom danañ am nuñ ko tuddee fi doon sëñ bi duñ ñëw rek ne ko jugal tey da ngaa war dem fee doonte ñoo ko fa yóbbu waaye dañ koy informer d'abord dañ koy yónnee ne wax ko ne ko am na ñu ñu décidé dafa war a jógee fii ak diiru sàngam donte duñ ko wax dar bu précis bu ñëppee ñu notifié ko maanaam Cheikh bi léegi nga yóbbu dañu yóbbu notification bu koy wan ko yow sa séjour fii ci Mauritanie jaax na da ngaa war a dem séjour ne fee loola dañoo dañuy toog def seen ay ay ay kolong kolong atte seen atte donte bu jalgate la waaye dañ koy jaarale yoon fi mu li ñu doon teg sëñ bi ak jalgate la guñ jaarale yoon moo tax du jaagee na lu lu ñu yoonal nii rek lu yoon la ak jalgati guñ jaarale yoon moom lañ doon teg sëñ bi loolu itam lu ma ta bàyyi xel la sëñ sëñ saa wax na ci xeetale gi maanaam sëñ bi niñ ko doon doxee moom ay ay xeet yu wuute la wax gi wax ne gaan gabon gi bokkut ak gànnaar gi ay gànnaar gi bokkut ak céen gi céen gi bokkut ak njaareem gi dara bokku ceeg sa moroom noo xamante ne noonu la demee ñëpp dañ jàpp ne rek waaw génn nañ ko fii jaarale ko fii téye ko céen téye ko te téye yi ni bokkuñ niñ ko téye bokkut jubluwaay yi bokkuñ loolu itam lu mat a bàyyi xel la ndax wax na ci résidence surveillée mooy lan te wax na ne Murtani loolu la fa nekkee woon waaye résidence boobu dafa amoon benn itlaax bu xaw a ndaw amoon na goyefal sëñ bi amoon na man manub juge ci barab dem ci beneen barab gis nañ ko ba tey mu ànd ak Cheikh Sidiya ba mu yàgg ñoom ñu ne ko dañu toxu mu ne déew ma ba mu yàgg moom mu jugeel boppam fenn dem feneen et cetera te loolu bi mu ñëwee ci ceyeen mënu ko ndax dañoo dañu ko ni mu waxee dañ koo daggal loo xamante ne suñ ko génn ak ca aju yëpp am na leneen lu ci xewaat mooy mooy mooy mooy discipline citoyenne bi nga xamante ne mur yi nangu woon nañ koo wàccoo ngir bëgguñ bëgg Sëñ Tuubaa ñoom Sëñ Tuubaa lañ mënta ñàkk loo leen teg ci ci jot ci Sëñ ñu tegoo ko di di leen fay loo lempo ñuy wàccoog moom buñ fetteerlu woon ci ne dañuy dem far force mën nañoo jaar ci ay ñàll di daw ñu leen dàq ak a karkaral ak yooyu waaye dañuy xool li nga xamante ne moom la ñu yoonal te yoon te du yoon ñu jaar ci ngir mën a jot ci Sëñ loolu itam lu mat a bàyyi xel la te te doon nañ ko tegoo te mënoon nañoo jaar ci aw ñal nag wala ñu fetteerlu war ne maam li ñuy teg du nii demeewul nii nangam nangam et cetera te teewul ñu ñu nang koo dem mooy restriction yooyu ñu tegoon ci ku bëgg accès ku bëgg accès di ci moom mu doon wax ci ne Sëñ waa li ko taxoona a jóg mooy mooy tarbiya tarbiya googu la cay juddoo mooy xettali jaam ñi eh, juñu na ko ci Sëñ Mor Absolo moom nga xam ne eh, sëñ sëñ bi daje na moom ndar ndax balaa ci ci yoonu ci bi la ñëwee ànd ak maam Thierno te ca loola ba muy bindaat minal xaqi eh, jë siñ siñ isaa juñu na ko lu lu lu ama am solo la mooy suñ mor absolo moom daanaka moom moom la moom la jaaralewaat ca moom la yàlla dogal ca moom ca minal xaqi ji te loolu ci yéen la xewee mooy ba mu leen diggee ne leen mooy te texe googu mu leen daan dig murtandi rek ngir mettuwaay bi ñu jàpp ne da leen koy defalee te dëgg la suñ tuwaa du waxi larax ma maa yente xo ne la waa suñ tuwaa lu mu wax rek noonu noonu la demee texe googu mu leen doon digg te mu tonde lool rek ñu jàpp ne da leen koy defalee ngir metti bi mu ñëwee man damaa jàpp ne loolu firnde la ci texe gi mu leen doon digg Murtani ci menal xaq yi ndax ba mu ñëwee bind ko mu egsee ah, ci yéen bind ko dafa woo maam Cerno nekkoon ko nañ nañ nañ woo mbooloo mi ci niñ koy nettalee nañ woo mbooloomi mi yëpp ñëpp ñëw ci penc mi mu ñu woo ñëpp ñëpp daje mu ne maam Thierno ndax ci fere yi man nga ma cee wool koo xam ne dana am kàttanuk lii ma bëgg a wan mbooloo mu wan mu wan ko ñoom ñu mu wan ko ñépp maam Thierno ko waaw daan ne Mor Absa Lo dana ko man bi mu woowee si Mor Absa jox ko waa Tuubaa dana nga fexe ba ñëpp gis ko kon na nga sàkku ay fere ñu dugg ci biir nit ñi di leen wan ne ñëpp nañ xool kayit wii nga leen di wan ndax moo tax ma woo leen Sëñ Mor Absa neen daa jël ab bant yett ko képp ca kayit ga dem ci ginnaaw sàkket yëkkati ko fi mbooloo mi nekk nga xam ne sàkket bi moo dox digganteem ak mbooloo mi mu yëkkati ko ba ñëpp gis ko xam loolu tamit jël ay mesure la ndax gaa yi itam ñu ne lii tawal suñu coono dina woon ñu song ko lekk kayit bi te loolu wër <laughs> def na ci technique yi donc taxaw ci ginnaaw permi yëkkati ko am ñu dugg ci biir mbooloo mi naan leen sëñ bi nee na ngeen xool kayit bi moo rab solo di yëkkati. moo tax mu woo leen xool kayit yi loolu leer ci nit ñi mu woote bi day am solo ñu xool ko gis ko mooy leen ku ci teg bëtam mooy sak texe goo xam ne ak texe du cop ginnaaw bi mooy musal gi mu wax ci musal musal sawara nga xam dañ doon yëkkati gone yi nga xam ne mënuñ koo gis sax nga xam ne dañ ko dañ leen doon tungoom ngir ñuy xool kayit wi ba mu noppee suñ morom indiwaat kayit wi jox ko sëñ mag bi mu wax ko ca loola téye ko ab diir woowaat ko jox ko ko ne ko na nga ko waggar sàmm ko ba ku wërsëgam nekk ci teg ci bëtam boo dana dox ba fekk fi mu nekk mu teg ci bëtam su boobaa lii ma waxoon ca ku ci teg bëtam rek texe goo xam ne texe du ci topp gannaaw bi ku ci wërsëgam nekk dana dox ba teg ci bëtam eh, maam Thierno nee na maam Thierno abbu na ko ko ngir sotti ko moo tax mooy illa yi sax daanaka mag ñi daan bind mi xaq di ko taf ci seen kii di ko taf ci seen kër yeeg seen saal yeeg ku dugg mën koo gis eh, loolu lu lu am am solo loo xam ne ci jéen la xewe woon ba tey jii sëñ bi wax na ko léegi ci ci ci ndaam Bouchra fii ci ginnaaw Daaru Moot rek bu ku fa dem da gis mbindum sëñ Tuubaa moom bindoon ci këyit woowu mu joxoon sëñ Mor Absa waa këram ñu fonk ko lool eh, gaa yi teg nañ seen bët gaa yi nga tarkal gaa yi bëri ak ah, waaw ñeen ñu bëri teg lañ seen bët fu mat a dem la di ca teg sa bët ndax sëñ Tuubaa da nee na tegoon na ci ne ku ci ku dox ba teg ci bëtam muy sëb sëri ca ci tukki bi ceen jox na leen ab sërite ci dox ba teg ci bëtam muy sa sërite ci tukki bi nga xamante ne tukki woon na ko kon loolu lu am solo la loo xamante ne ci yéen la xewee ak yu baree bari axiru dawaan alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf si ngeen sax yal na yàlla doolee sàmm bu wér te sàmm murid rek bañam nga demal sëñ Tuubaa euh, suba insha allahu taala am na weneen waxtaan buy am sëñ Ablaye sëñ euh, Fallou Tamba moo koy waxtaane yaakaar naa min karaamaati Cheikh Khadim lay waxtaan yoo xam ne da koy tubbee ci tukkib géej gi dañ daan def di waxtaane yenn ci ay melokaan yoo xam ne sëñ bi melo woon na ko ci biir tukki bi waaye tey day tànn waxtaane ay xarbaax yoo xamante ne eh, yàlla defal na ko sëñ Tuubaa ci biir tukkib géej bu subaa sëñ Fallou Tamba moom lay waxtaan incha allah buñ ko toppee ci vingt et une bu tegalee juróom eh, trente minutes vingt et une heures trente incha allah dinañ ko mën a topp ci site yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.